Bamba Noreini, reyni muñ koy wowe Serigne Modou Kara euh, mu nek euh, général bu Al Hadmiya ñu fas nak waxtane euh, ci li nga nak mom moy walu politique situation rewmi ak la situation du clergé religieux ñu tambali nak suñu waxtane bi madame bon n'est plus à présenter euh, c'est le président du groupe Avenir euh, Communication euh, dont l'AMLEM c'est le journal le grand journal Le Quotidien il est journaliste analyste politique mais également écrivain cette semaine madame Baldiagne entretenir les lecteurs sénégalais de l'actualité l'actualité c'est aussi euh, ce euh, bi nga xam ne génn na ko à propos euh, muy revenir ci li nga xam ne nag moom mooy euh, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr tamit mu def une chronologie euh, des faits euh, li nga euh, depuis mars 2021 até mu relaté sa fameuse chronique bi nga xamné mom les lundis de Madiambal mu koy diffuser bien sûr tous les lundis mu yitel nak tout ce qui s'est passé dans ce pays au plan socio-politique politico-économique et même sur l'international dans ce livre toujours il a recueilli les confessions de Adji Sarr de Adji Rabi sar Euh, ki nga xamné nak mom mo dossier bobu ak euh, Ousmane Sonko euh, il s'adonne aussi à des comparaisons mu et puis il nous rappelle aussi que dans une époque lointaine lointaine entre 88 93 on aura vécu des cas un peu plus similaires mais contexte yi dafa changé waye Madiambal Diagne nag du livre bobu rek mom moy don suñu waxtan ndax bari na ci lo xamné mom euh, ébruté nako dans ses chroniques hebdomadaires daañu revenir sur l'actualité euh, politico judiciaire de manière générale l'actualité économique avec ce drame de l'immigration euh, euh, la situation des différents pôles politiques Nous li nga Diagne journaliste analyste politique et écrivain Madiambal Diagne bonsoir. bonsoir Maïmouna. ma lay euh, remercier ci sa teewaay euh, ñu fas yéene rek euh, sekk ak yow waxtaan boo xam ne nag dina laal ay ponk yu bare bare daañu touché à beaucoup de dossiers mais tamit dinañu projeté wu ci li nga xam ne moom ces perspectives très intéressantes au plan politique yi nga xam ne le Sénégal s'apprête à les vivre. jërëjëf na maa ngi lay sant di la gërëm ci dayal dalal bi ma dalal tey maa ngi nuyu say téléspectateur di leen euh, euh, massawu ndaxte dañoo nekk ci jamono ja nga xam ne jamonoy tiis la euh, tey boo seetloo Sénégal dafa nekk ci dëj sax ndax accident bi am booru Louga ñu bari ñàkk ci seen bakkan yaa ngi wax léegi drame immigration maa ngi doon seetaan léegi benn élément buy jàll sa télévision di wax ñi nga xam ni ay ndaw lañu ñàkk seen bakkan ci mbë mbëkk mi euh, kon nag loolu bu amee dañuy masawu réew mi jàlle ñëpp euh, te di ñaan tiis yu mel noonu gëj fi euh, te di ñaan ñi nga xam ne ñàkk nañu bakk seen bakkan yàlla xaare leen àjjana dal di may seeni waajur ak seen i ñoñ xolub muñ mu une semaine très macabre au Sénégal euh, barki Demb. Euh, fii ci waaxu Wakami à quelques à un kilomètre à 500 mètres euh, des locaux de notre télévision dañoo Yewu des corps di euh, sur la sur la plage mu don ay jeunes ay ndaw yoo xam dañ braver la mer pour rejoindre l'Espagne yalla jël sen bakane mu don phénomène bo xamné nak dafa dellu siwaat te it dafa upp bu baakha a baax askan bi qu'est-ce qui peut bien

Euh, c'est une pure coïncidence. Hein. Euh, aujourd'hui, on est 26 juillet 2023. Euh, je vous reçois, je vais recevoir Ngirnyo Bartan. Ironie du sort, ce matin, au niveau de Ndayan, nous démarrons Fofou. Euh, li nga xam ne euh, euh, l'accélération des travaux du port de Nous ñu démarrer un pas ñu def un pas décisif muy les démolitions sur la façade maritime Ndayan Bobu, am nga fa vous êtes confort vous êtes concerné par ces démolitions alors nan nga gisee mbir yi Euh, ni nga ko waxee noonu la tey euh, waa port euh, port bu bees bi ñuy waajal ndaayaan commencé nañu liggéey bi fan yële si ginnaaw mais ñi nga xam dañoo dëkk ci boor yi ñuy tuddee ay impacté Euh, dafa commencé ñu commencé daaneel kër yi nga xam ne ni port bi da koo soxla te mu bokk ci euh, li ñu jagleel poor bi euh, comme ni ko waxee man am naa fa daluwaay ba nga xam ne ni que bokk na ci bon sénégalais la gis naa ne état bi am na projet ba nga xam ne ni mi ngi koy nas wala mu ngi koy doxal ci lu lu ñu jàpp ni njëriñ la ak yokkute ci la ci réew mi te état bu soxla kenn amatul état def procédure d'expropriation

Euh, defe naa ni que affaire indemnisation moom at yu yàgg Sénégal réglé na loolu moo di que dafa am ay barème ya nga xam ne ni barème yu euh, internationaux la euh, wala barème ya nga xam ni que néewuma bu ñu indemniser ñëpp daañu ci gis seen bopp wala ñëpp daañu ci am leen li ñuy gënal waaye euh, état du Sénégal mi ngi góorgóorlu ci loolu ci projet yu bari projet autoroute bi gis nañ ko fi coow li bari woon na fi gis nga bi ñuy def projet VDN bi euh, prolongement VDN bi amoon na fi coow mais yëpp indemnisé nañ leen ak aéroport ak yeneen euh, kon aussi port bu bees bi defe naa ni que yoon woowu la jaar am na ay barem yi nga xam ni port bi doxal na ko foofu aussi maa ngi ci vraiment saluer disponibilité le directeur général du port et les autorités de l'État ni ñu waxtaanee ak population yi Euh, ñëw waxtaan ak nit ñi expliquer leen li ci nekk wax leen lan mooy sababu projet bi ak li ci état bi namm ak lépp waxtaanee nañ ko ay séances yu bari ya nga xam ne man am na yu ma ci fekk am na yu ma ci fekkewul euh, waaye defe naa ni amul kenn ku umpale euh, mbir mi ni mu demee ba indemnisation yi aussi bi ñu koy def def naa def nañ ko ci ay taux ya nga xam ne ni que kenn gisu dégg gu ma bokk. ku ko diingat wala ku ci wax du la nga xam ni que du noonu man ngaa dikk nga ni xëy na li ma jox li ma yaakaaroon ci sama alal ëpp na ko euh, waaye nag dëgg-dëgg li ma ci jot a gis ak ñi ci jot dégg ñu wax ci ak ñi ci waxtaan ak man yaakaaruma ni am na ku ci xam ne mu ngi ciy am lu mu ciy ñaxtu. Euh, une maison c'est une euh, kër ñu démolir ko lan ngay amoo amoo regret amoo wala da teg ci sa kanam li nga xam ne moom mooy l'intérêt commun. wax dëgg yàlla intérêt teg naa ko ci kan suma kanam mais aussi. Euh, fekkoon na jamono yooyu man maa ngi doon bëgg tax doon wut ku jënd kër googu euh, yow lu mat ñaari at ci ginnaaw doon naa wut ku ko ku ko jënd parce que euh, gisuma gisuñu gisoon ne bari tuma njëriñ moo tax bi affaire bi ñëwee aussi tombé fekk am na ko doon waxaale sax bëggoon ko bon donc port bi far aksi kon nag wax dëgg yàlla du ma nii wokk bu tombé gestu la waaye wax dëgg yàlla aw ma ci benn attachement particulier ba nga xamee ni euh, am naa ko ñu dëgg-dëgg am na ña nga xamee nag fa la ñu dëkkoon ak seen njaboot euh, ca koñ ba ñu jële leen fa xëy na dina am euh, lu muy def ci ñoom gis naa ni tamit état bi am na lu mu proposé woon moo di accompagnement social ñi nga xamee ni que fay nañ leen xëy na pour ñu dem wuti la leen ak fu ñu dëkk xëy na am na lu état bi bëgg a yéewanale yenn jàppale yi loolu aussi dégg naa ko ci waxtaan bi mais comme ni nga ko waxee xëy na nit ki bu amee alal wala mu am lu toll ni makkaan euh, tey bu xëyee ñu yàqu ko euh, xëy na dina am euh, réccu gum ci am wala xëy na xolam du ci neex maa ngi fàttaliku am na benn dédomagement bu amoon wala démolition yu amoon ci booru Cambérène jamonoy temps kii bi temps prolongement VDN bi ma dégg ay population xëy dañ leen a indemnisé ñu dem jëndi kër feneen fu sori mais jour bi ñuy dédommage bi ñuy daaneel <laughs> dañoo ñëw déplacé ñëw di ko fekkee ma dégg ci benn reportage rajo ñu naan leen waaw ñu ngi daaneel seen i kan nu gis ñooñu ne boo gisee ñu ñëw fi dañoo dikk rek xëy na dañ fee juddu yàgg fi màgge fi ñuy dara suñu kër waaye nag dikkuñu pour am lu ñu naqari wala am lu ñu lu ñuy dingat hmm. te loolu ay at yu yàgg la ci ginnaaw alors euh, semaine bi euh, wala sax weer bi ñu gis ne jeunes yi dañoo songaat bu baax li nga xam ne moom mooy mbëkk mi Euh, ñu bari japp né euh, climat bu favorable bi euh, motax et pourtant am commencé à nañ am les jeunes avaient compris parce qu'il y a y a eu énormément de campagnes de sensibilisation énormément de projets déroulés on le gouvernement a même organisé même même des stratégies pour favoriser le retour au bercail des immigrés alors lan mo meuna aujourd'hui

mu jaral ko mu ñàkk bakkanam dem di wuti loolu benn la ñaar li tax ma indi responsabilité fami xam nga aussi ku am tiis doo ko yedd da ko war a masaw waaye te war nañ seetaat suñu bopp ak nit ñi doxale gis nga am na ci ña xam mëkk mi ñi koy def xëy ñu xëy dëkk daal di sóobu ci géej dem di fay de dañoo dugg ci ay bateau préparé ko fay xaalis pour ñooñu yóbbu leen am na ci ña xam ne dañoo fay lu bari pour ñu ñooñu yóbbu te am ay famille xam dañuy seen i waajur ñooy tegg ay natt jox leen ko ñu fay wala waa famille bi cotiser pour fayal leen ñu dem loolu am na fi kon loolu bu fa nit kat ñàkkee bakkanam wax dëgg yàlla lu mu tiis tiis tiis aussi responsabilité famille bi am na ci responsabilité ki nga xamee ne tamit moo ci nekk dem ñàkk fa bakkanam am na ci ndaxte ki nga xamee ni yow yaa ngi gis di suturlu fi mu néew mu bari nga fi am la nga xamee ne man nga cee yor njaboot euh, wala xëy na sa yéene matul waaye am na lu nga xam ne yaa ngi koy suturloo nga bàyyi ko fi jaay sa bakkan ci lenn li aussi kon am nga ci sa responsabilité di nga gis ku bàyyi fi bitigam bàyyi fi activité dugg ci mbëkk mi man gis naa ko kon kooku aussi wax dëgg yàlla euh, rêve boobu muy wuti ak la muy euh, daw euh, ba ñàkk ci bakkanam bu ko loolu dalee wax dëgg yàlla dina tiis waaye tamit mën nañ ni que moom it mucc ci li ko indi am na ci responsabilité ba nga xam ne aussi état bi la te bu responsabilité bu rëy la ci état bi am lii bettul kenn ku ne xam na ni bu tàngaay wi amee géej gi day neex ba xale yi ci la ñuy sóobu di dem euh, nanguma ni état dina jël ay responsabilités war na day sécuriser ay frontières am di bàyyi ay gaal yoo xam ne dañuy def ay téeméeri nit wala ay juróom fukki nit ay juróom benn fukki nit ay juróom ñaar fukki nit ay ndaw ya nga xam ne gis nga leen ñu gàddu seeni i bagage di war a tukki ñu mën a dugg ci benn fort bu mën di doon wala tefes gu mën di doone jaar ci géej gi te geen gisu leen kon am na ku leen gis gëmu bëtam ولا أمنا كلن جس نيفايكو مجمع بتم ولا كذا خمني ولا كلن ورانا جس جسولا بصير فيون فرانكيري تخاو تخاو يبقى ولا تخاو دفعنا نكون لو يجي منا رام بيدم لولو بن لا نيار الكي responsabilité état responsabilité état بلو إذا ده لفنك responsabilité gouvernement ما administration administration بري أي بانكاس أمن police أمن gendarmerie أمن armée أك euh, marine يبني خني ورانا يولي كي دي سيرفاي فرانكيري دي سيرفاي كوي ده مكوي نيو am na la nga xam ay fukki gaal ay juróomi gaal yuy def ay trois cent personnes ay deux cent personnes sama xel mu gàtt mënut a nangu ni mën naa déparé fenn ci Sénégal romb ay dëkk man nanguwuma loolu sama xel mu mënu ko nangu kon am na koo gis gëmm ci bëtam wala bañ koo xool kon am na foofu responsabilité loolu li muy dikk li muy wund rek moo di li xew ni metti na ñëpp euh, mais responsabilité bi nga xamee ni am nañ ko ci aussi buñ ko daw nañ ko assumer ñun ñëpp te jéem a fexe ba nga xam ne ni que ñu def ay pexe ba ndaw ñi gën a mën a toog seen réew gën a mën a toog seen réew wala ku ci jóg bay da ngay wuti ci bitim réew ndaxte aussi dem ak ñëw àdduna lépp koy def amul benn réew ba nga xam ne da naan du ma tukki yi wala du ma jë jëgaa jëgaa feneen xëy na sax boo génnee sam réew dem di jëgaa ñi feneen sa euh, jom dina la buur ba nga xamee ni que la ngay nangu ci bitim réew euh, pour wut fa loo suturloo état bi war na cee mën a encourager nit ñi encadrer leen euh, ci li mu man euh, waaye aussi yee nit ñi ci la te jàpp naa ne yéen a ngi yee nit ñi jàpp na état nga koy def réew yi nga xam ne ñu ngi fay jëm aussi ñu ngi jël ay matukaay pour jéem a waxtaan ak réew yi nga xam ne foofu la xale yi jógee pour ñu xool nu ñu leen di téye seen dëkk wala ñu xool nu ñu leen di mën a wutalee lu ñuy euh, yëngatoo mbir bi duma spécialiste loolu dama ciy wax sama xalaat nii rek mais encore une fois xalaat naa ni daal lu mel nii war naa dakk ndaxte nak deug gisuma fi wax deug yalla mas na ko wax ben bis ci ben conférence bo xam man ko amone tour France euh, ci affaire immigration bi euh, ci panel bi man mandal. man dal dama gis fekk boobu dafa amone ben bateau bëgg xamé ni dafa am ñu ci ñàkkoon seen bakkan ñu am ñu télévision française interroge len ma gis élément bi man len man lima ma jaaxal de modi ñi Sénégal lañ joggé Côte d'Ivoire lañ joggé Nigéria lañ jóge yaakaaruma ni li ma xam ci Sénégal ak Côte d'Ivoire ak Nigéria nit mën na fa xiif benn xiif bi ba bakkanam mu jaral ko ñàkk ko ci géej gi ma ni benn ñaar ma ni élément bi nga xam ne dafa romb dafa am ka nga xam ne daf ni 5000 euros la fay pour jàll. Mhm. ma ni 5000 euros yéen ñi nga xam ne dañu nekk ci salle bi yéen di nekk ay journaliste lañu rencontre journaliste la woon. leen yaakaaruma ni am na ci ci yéen. Nous avons économisé 5 000 euros euh, pour émigration mané kon koka ka a 5 000 euros wala ne ko ak num ko ko euh, responsabilité. mais euh, est-ce qu'il y a un phénomène psychosocial. ou mm-hmm. anthropologique buñu wara a analyser décrypter mm-hmm. parce que dégg na ko né dafa 3 millions. Mm-hmm. pour dem. kooku ne ko 3 millions mun nga ci tijji boutique mu ne boo ci tijjee boutique dañ la koy leb mu mu mujjee je préfère partir euh, y a eu des de sensibilisation aujourd'hui Sénégal bu nekk xam nga ne Europe dafa metti euh, gis nga bu njëkk ba riiru moodu moodu bi léegi euh, mbir mi wàcc na ñoom sax dañuy dimbale jeunes yi di jéem a sensibiliser xam la ne Europe dafa dafa dafa metti alors nga xam ne Europe dafa metti yombatul amatul liggéey phénomène yu bari mu ngi secouer l'Europe nga mën a am sa teraanga fii mën a am sa 1 million mbaa sa 2 million mais mu jaral la nga def loolu yëpp est-ce que amul leneen lu ñu war a xooli euh, ba comprendre euh, ce ce ce phénomène là. ñàkkul sociologue yi war dañ ci gëstu. Euh, mais aussi am na ci la nga xamee ne buñ ko réeree mbir ñi nekk Europe ndax ñuy wax toujours li xew ak lañ fa dundee ak lañ fa nekk ñu koy wax ñi fiy jóge xam nga boo demee Europe yenn yenn photo yi. te fekk xëy na sax dundoo loolu foofa dem nga ci benn place bu bakkane yónni ay nit fii di leen maa ngi fii wala nii la mel boo ñëwee dinaa la wutal liggéey wala boo ñëwee fii liggéey yomb na fi ka ko dégg gis ni que yow mii kat fi nga nekk bakkane na mu xool boppam xelam mën naa nekk ci ni naa dem ak noo fa àgg. mais les frontières sont devenues sont sont ouvertes léegi. ñun euh, man gis naa ñu jël jàng xel dañuy jóge ci bitim dañuy jóge ci sous région bi ñëw di liggéey fii. nekk seen kër patron di fa liggéey photo wu yónnee ko seen waa dëkk ni leen ko fii laa dëkk wala fi mooy sama kër wala photo ci mbedd wala photo wu place ba nga xam ne bakkane la kooku xam nga lu mel ni kan ka fa nekk ca réew ma ñëwagul xamul loo nekkee fii day yaakaar di toujours rek que fële xam nga nit doomu aadama moo mel noonu euh, li ñuy wax naan l'herbe euh, on croit toujours qu'elle est plus verte voisin. Euh, ci li nga toog doo ko gis. la keneen ki yor ngay jéema xool wala di di ko jéem a ñee loolu mbiru doomu aadama la il faut que ñu ci yéen ñi di ci tàggat di ubbi seen xel ci lu bari euh, mais euh, affaire immigration du yomb a euh, ndaxte li ci laxasu dafa bari ku nekk ak la lay tax ku nekk la lay yëkkati waaye ca dëgg-dëgg bu ñu yaakaaree ni la doon la xewoon démb ak bërki démb ba boo mënee dem for dara dellusi wala yónnee ko fii dëgg-dëgg loolu nekkatul te ñi nga ne nekk nañu pression bi nit di leen laaj leen la nga mm-hmm. que ah dañuy xañ pour yow da ngay tukki xam nga yi xam nga daj kon il faut aussi yërmande am ci mais loolu lépp aussi li ma ci bamtuwaat mooy ban pression la famille ci nit ñi pression la famille ci nit parce que bu fekkee da nga yow nga nekk sa euh, soxna nga nekk soxna sa borom kër nekk fële nga bëgg di takk greffage bu mel ni bu bu gën a rafet bu maymuna bëgg di ngénteek euh, xew ak euh, lu bees lu xew nga bëgg koo teg te kooka mënu ko te bëgg la teral ni say morom di tedde mm-hmm. boo ko tegee lu met lu mu mënul day tax ëllëg si mu def lal ni sudul noonu mu ci seen i soxna di seen i waajur Euh, ndaxte aussi boo dikkee bëgg a won sa doom ni ko sa moroom tekki ne tamit wërsëg yemuñu euh, lu tax kii man li te yow mënoo ko nga teg ko loolu nii day tax mu jaral ko lenn li aussi kooku bu génnee àddina wax dëgg yàlla boo wéetee ak sa bopp di nga war a yedd sa bopp war nga am lu la lu la métti alors euh, Madiambal semaine bi mm. da ñu surprendre avec un un livre un livre ngay revenir Euh, ci beaucoup de faits d'actualité waaye rawatina euh, ci li nga xam ne nag moom moo lëmbee réew euh, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr alors pourquoi parce que pourquoi nga choix nga xaar ba procès bi jeex nga doog a génne livre bi daanaka sax am na mbir yu bari yoo xam ne nga ko avant hmm. livre bi wax dëgg yàlla maa ngi ci sant sénégalais yi ni ñu ko accueillir ndaxte wane nañu nit ñor na leen soxal na leen euh, li ci nekk bëgg nañ koo jàng te ñi nga xam ne jot gis nañ ci la nga xam ni euh, jàpp na ni njariñ la pour ñoom wala yokk na leen am na lu mu leen yokkal wala am na lu leen indil wala ubbi na seen i bët ci lu bari. Hmm. kon euh, loolu bu amee dama koy rafetlu te di wax ni que xëy na bu dee contribution lu mu néew am njariñ pour réew mi li nga xamee ni aussi. dinaa ko ci nemmeeku ci réaction yi nga xam ne nit ñi def nañ ko ci li ma gën a jàngal mooy nu Sénégalais attaché woo ci jàmm ak réew mi ak lu koy ñoŋal ak lu koy aar euh, réaction yi ci ëpp loolu la li ma ci gën a neex tamit am na bët ba nga xamee ni que xëy na ki ñu jàppe mooy la victim de Adji Raby Sarr musuñu koo déglu musuñu koo jox kàddu musuñu koo may nopp ba tax na sax dañ ko ni woon doo fi waxee euh, doñ ko ni doo fi waxee euh, ba nga xamee ni que lu nit ma sa yëkkati ci lu ñaaw teg nga ko ci deram lu mu nit mas a xalaat la nga xam ni jomb nga ñu waxal la ko wala jomb nga ñu waxal ko sa nawle wala jomb nga ñu waxal ko sa mbokk sañ am nga sañ-sañ wax ko ko mm-hmm. jo joxar bi ko ko te amu ci lu loo ci aaye sa bopp bi nga xamee nag tey am na ña nga xamee ni li ci confidence u Adji Sarr yi génne bari na ñooñu nii man de wax dëgg yàlla man am na ñan nga xam ne wóor nañ ma ni ma dey mbir mi ne bi ma jàngaatee xale bi am na lu mu def ci man te gis-gis bi mu ne ak bët mu kon xoolee wute na bouleversement am na ci ñu bari. Mm-hmm. émotion am na ci ñu bari am na ña xam ne gis nañu ni kat lii fooguñu woon ni que euh, lépp xew na ci te loolu li muy indi moo di xëy na suñu société dama nekk société boobu nii boo nekkee doomi borom barke wala doomi ku ñu xam. wala doom yi ku am nañ lay téye ak nañ lay xoole ak nañ lay lijjantee sa mbir bokkul ak ka nga xam ne nekkoo doom yi kenn te malheureusement aji looloo ko dal loolu ko ku néew doole la daje nag ka nga xam ni mbir bu dox la seen diggante jote nañu ku nga xam ne xëy na am na doole wala xëy na am na baat ci réew wala xëy na am na ñoo xam ne ñi nga ànd ak moom ki nga xam ne moo kuy néew doole ki mayuñu ko benn chance mu wax jàpp moom daan nag

Euh, contre contre elle comment elle ñuy def ci mom presse bi lu muy wax ci mom nu ñuy waxtane ci mom euh, peut-être qu'elle aurait préféré peut-être que euh, journaliste yi wala presse bi def du parti pris mais xam nga li metti ci genre dossier yoyu deug bi day neub donc li nga mëna def moy traiter Ousmane Sonko ak Adji Sarr comme ñaar citoyens yo xamné dañoo dañoo dañoo mais euh, dafa am une phrase très très touchante moi je veux pas revenir sur sur ce qui s'est passé mais une phrase très touchante elle dit je suis entrée dans un cauchemar toute ma vie j'ai cherché l'amour quelqu'un qui m'aimerait vraiment comme je suis qui ne me jugerait pas euh, quelqu'un qui euh, trois points de suspension je ne sais pas je ne connais pas l'amour alors en tant que Djigen, en tant que nga d'homme, tu es ému parce que c'est souvent le drame des enfants le drame des femmes le drame de beaucoup de sénégalais tamit euh, man waxuma mais situation yo nit en lisant ça, je me rends compte parfois qu'en faisant des émissions, on a dû dire des choses très blessantes euh, à une jeune dame, à une jeune fille. et justement loolu moo ci am parce que xam nga da nga naan bu ñaar jotee dangay ngay jéem a def traitement xëy na xamoo fu dëgg nekk nga jéem a def équidistant mais équilibre amul ci woon ci traitement presse bi may mun a ay ay journalistes lañu. waay journaliste am lañu nañu waxante li xew. Adji Sarr a été accablé systématiquement par les médias journaliste bu bëgg wax ci Adji Sarr défendre ko wala nga ni nañ ko déglu sax ñu saaga la wax la lu nekk amul lu fi yekkul journaliste bu jéem a défendre Adji amul lu fi yekkul. Euh, nit ka nga xamee da nga jóg nek homme politique wala nek société civile wala nek feneen ni nañu may nañu respecter droit xalé bi kuko ci def amul lo déggul ci lu ñaaw amul lo déggul ci lu ñaaw ba taxna na dañu muju waaf kenn ñi muy tudd aji sar aji sar c'était la pestiférée lolu moy li nga xam responsabilité média yi la c'est notre responsabilité de média on a fait un traitement déséquilibré au détriment de Adji saa mu neex mu naqari loolu la jaay yi taxawee dafa amoon terreur ba nga xam ne dafa am te ba léegi dafa am dama lay jox benn exemple rek may mun a ba nga xam ne dina la reetaan loolu livre bi mu génnee xaw naa ci tumuraanke pour jaay ko <laughs> non xam nga lan moo xew annonceurs yi ci seen bopp publici panneau publicitaire yi gisoo ko ci benn benn panneau publicitaire dañ ne yii ma jàmbal livre bi dañuy toj euh, panneau yi bu ko defee dañuy toj samay panneau peur duggul foofu am na ay libraire ya nga xame ni nanguwuñ ko woon jaay bi ñu dawalee ñaari fan ñetti fan ñu gis ne livre bi ñëpp soxla nañ ko lañ ko commencé laaj mais au bi kenn nangu koon woon jaay vendeur jour yi nanguwuñ ko woon jaay ndax bañ ko leen attaqué wala ñi koy jaay dañ ko def ci benn saak boo ko laajee ñu génneel la ko parce que terreur lañ dugal ci bopp nit ñi ba kenn ñemewul assumer ni kat damay jaay benn livre ba nga xam ni day wax ci problème bi est-ce que ñun Sénégal war nañoo tool ba ay nit mën a tere wala mën a am benn livre bu ñu bëgg a jënd dem jëndi

ne wa kon yonne mako ci par email euh ma xol ko maniko jox ma sa boîte email mën na la ko yónnee ba sànq suba yonne wu ma boîte yonne wu ma email bi bagn naa ko ba man bi may imprimer sama livre dama ko imprimer à l'étranger pour le faire venir ici est-ce que am nañu ñun Sénégal dem ba nga xam ne moomatuñu suñu bopp wala ñemeetuñu fé taxaw parce que amna ay nit ki nga xamé ni que dañ li du fi amé wala dañuy dal ci sa ko moi je le refuse moo tax responsabilité médias yi am na ci responsabilité population am na ci responsabilité état am na ci parce que état protégé wul citoyen gis nga fi ay nit ñi nga xamee ni dañoo dikk nit taxaw ni leen dal leen kër jàmbur état seetaan ñu dal kër jàmbur dara fekku leen ci nga gis ñu lakk kër jàmbur dara fekku leen ci nga gis ñu agressé nit dara fekku leen ci kooku c'est la responsabilité de l'état qui doit protéger les personnes et les biens ñun dañu war a nekk ci suñu réew ñu ñuy terroriser ci biir réew mi man du ma ko nangu. mais euh, xawma ce sont euh, tes tes tes qualités de de de rédacteur ou pas mais le récit il est poignant. Mhm. Euh, boo liiree livre bi di nga am yërmande ak empathie ci ki nga xam ne moom mooy moom mooy Adji Raby Sarr et c'est le comportement et la façon de parler. Euh, mën nga euh, que c'est normal pour ce qu'elle qu'elle aurait subi mais pourquoi on un contraste entre ce mu dans ci livre bi ni muy toucher son comportement son comportement. la Adji qui parle dans le livre n'a rien à voir avec celle qu'on a médiatisée avec celle qu'on nous a qu'on nous a vendue même le jour du procès <laughs> je me dis euh, ligne euh, le jour du procès bon je suis désolé hein Adji euh, vraiment euh, je suis une femme mais là je reprends mon rôle de journaliste le jour du procès elle a parlé comme une femme mûre comme une femme qui semblait assumer li alors que dans le récit peut-être que yow a ko hmm. c'est une victime c'est une fille fragile en réalité beaucoup les livres livre bi précaution de rédaction en disant que ni aji waxee nous, la indi ay waxam bëgguma ko nous changer dama bëggone authenticité et innocence propos bi parce que dafa enregistrement sonore parce que c'est la véritable aji à qui on a laissé le temps de s'exprimer aji sar kenn mu wax fenn fa nga ni woon nañ fa Adji Sarr mu toog fa plateau bu mel ni comme bi ma jox ni mu wu tranquillement en toute sérénité on a essayé elle n'a pas euh, voulu ñi ko encadré pas moom ñi ko encadré ils n'ont pas voulu donc kon ak lu mën di xew mooy amul occasion amul occasion c'est pas faute d'avoir d'avoir essayé et si elle veut elle peut venir s'asseoir ici euh, on va l'interroger je suis certainement ah. mais dama la bëgg a wax ne la amawul woon occasion toog wax en toute sérénité déverser li nekk ci moom nit ñi déglu ko dama la wax fii léegi ni la procès bi dossier bu mel ni man jàpp procès boobu interrogatoire d'audience ba nga xamee ni que euh, une histoire comme ça interrogatoire du man du ma juger liggéeyu magistrat yi doon contre audience bi mais j'étais resté sur ma dañ ko bàqale da nga jàpp na. enfin en tout jàpp naa ni que buñ ko gënoon déglu buñ ko gënoon a déglu xëy na mën na am dégg leneen aussi da nga wax da nga lire livre bi am ci lu muy def ci yow am na ay magistrat lañ dañu lire livre bi am lu mu def ci ñoom man am na nga dañ ma woo ni ma ah dëgg dëgg de li ma gis ci livre bi ñàkkul bu fekkoon lu mel nii waxee nañ ko nii wala xamee wuñ ko nii xëy na mbir mi mënoo demee. mais à qui la faute. mais elle elle a eu hmm. un temps de parole. Euh, dans le livre, on voit une fille traumatisée, euh, qui a peur, qui regrette, euh, qui est malheureuse. Lola nous qui livre une fille qui, qui, qui, a subi. Mais dans Ti a tribunal, c'est une jeune dame qui assume, qui s'assume, qui a parlé de manière salace. et, par, heurtant même parfois l'opinion. je vais t'expliquer. Maintenant, comprendre le défendre Adissara, hein, franchement. Mais aussi, Adji nek nekk nga xamee ne dégg na lu ne wax lañ ko lu ne eh, dafa wax Ousmane Sonko pour découdre avec mom devant tous les Sénégalais xam nga nañ ko dégg koy wax mën na am déception jour procès Ousmane Sonko Ousmane Sonko ko wala mu ak wala stratégie xam nga aussi ku dem tribunal da nga avocat lay préparer xaw ma nu koy avocat préparé xaw ma lu ñu ko wax mais dama la bëgg wax ni la daal man Adji Sarr dama ko jëkk a gis bi affaire bi xewee je crois que mas nañ ci waxtaan man la mas naa dajeeg moom ma toogoon waxtaan ak moom lu yàgg bokk nga ci ñi nga xam ne bi ma laajee bi ma laajee ni ma noo gisee fa man la xale bi ma gis de bu ñu ko dégloo mbir dina feeñ elle mérite d'être wax mas naa la ko wax bind naa ko sax day ci sama journal mais justement

c'est lourd pour doomu adama c'est lourd pour une jeune jeune pour jeune femme de son âge mais lu ci gën a garaaw mooy kenn mësut a xalaat yóbbu ko ci psychologue mu waxtaan ak moom. mësul jàkkaarloog psychologue on l'a abandonné à son propre sort. Adji Sarr tol na fi ay jamono yóbbu tol tolaan ba ay nit diko for diko fat Lolu nit ñi Sénégal war nañu ko xam Adji Sarr dem na fa ba xaru. Bin na ko ci livre elle a sauté du du du premier. mais elle a cherché à se sectionner les veines moi j'ai les images de ça il IHO Wakam bii lañ indi woon pour faj ko mais sénégalais yi dañu umpale woon loolu parce que may ñu fenn elle a été victime d'une pression à la limite ils nga dit, dal dalon nañ ñu bari tey nekkatuñ Sénégal wala déwon nañu mais kenn mësu ko may occasion mu wax donc cette fille là c'est une pauvre victime et doublement victime mais mais mais Madiambal Madiambal mhm. elle a fait quelques entretiens euh, est-ce que la faute c'est pas est-ce qu'il n'y ko yor waruñu ko won bay mu son naturel parce que dañ ko jël robotiser ko euh, def ko un un truc de mode def ko un objet un objet de mode euh, wax loo ko niveau de xamné xeyna mom na fofu et que peut-être que loolu motax opinion bi ñu bari parce que dañ don wax nan pour une fille qui a subi tout ce qu'elle dit avoir subi euh, comment elle s'exprime comment elle parle après ñeneen ñi dañ doutes am doute est-ce que nous euh, toute cette préparation bi ñu def ci mom l'authenticité de la de la de la de la un grand journaliste le premier jour bi affaire bi éclaté Adji Sarr génn ci plateau télévision yi le premier jour moy ba mu tolee fulaaram bu wax c'était la la Adji innocente ouais. c'était la Adji naturelle c'était la Adji qui venait d'être traumatisée xam nga lu ma wax xale bi nañ ko déglu xale bi li muy wax lu jot a déglu la neewul la muy wax kële def na ko wala defu ko du moom mooy àtte mais dama la bëgg a wax ne rek na ngay mel tey ak na ngay mel suba humeur yi mën na wute te surtout bu fekkee dañ la préparer conditionné la xaw ma yan condition la doon waxee ak ku def pro euh, encadrement ci moom ba tax mu wone beneen aji saar bu bokkul ak bi nga xam ne mooy aji saar bu naturel mais li wertu te moo di livre bi nga xamee ne liir nga ko sa morom liir ko dama ciy wax ay fee yu précis mu wax dundam ba mu juddoo ba nëga ni ak nu mu dundee événement ak jaar-jaaram joxe ay dat joxe ay firnde ya nga xamee ne que ku ko dégg di nga mën ni kat li kat xel mën na koo nangu xam nga ñun ñëpp ay mag lañu ñun ñëpp ànd nañu suñu xel wax bu yenu maanaa ku ko dégg xam ko wax bu dul dëgg ku ko dégg aussi mën nga koo njort mais yow ci sa wàllu ci sa wàllu bopp soo waxalee si aqulahi taala li keneen xalaat ak li keneen yëg livre bi nga liiree aji sa am na lu mu def ci yow lu wuuteeg la nga xamee ni que foogoon nga ko wala njortoon nga ko ci dossier bi pour man c'est ça le succès du livre et c'est satisfaction parce que jàpp naa ni que kët euh, am na nga xam xeyna du waxul dama ko ne est ce que sa doma ngeen ko seetaane ni parce que aussi ku nek da nga am yeg yeg ci mbir bi aji dañ ko seetaan dañ ko seetaan te ñiko gëna gën a seetaan jigéen ñi ñoko gëna gën ñi nga xam dañ wara taxaw fi pour défendre ak ak fu jigéen dañ ñom ñëpp dañu waaf am nañu xel ñi mu wona tuddu c'est ça la vérité xam nga wax aussi buñ ko buñ ko buñ ko nës nësal. oui elle le dit elle est hmm? allée voir des femmes féministes de la hmm? euh, de la de la. de c'était la pestiférée personne ne veut se voir. il y a pas eu de réaction. man gis naa ñi nga xamee ni dañoo bâtir seen histoire wala seen carrière qui défendre ay droits jigéen mais ba Adji Sarr ba ñu waxu Adji Sarr yé yee duggee dañ may saag wala buggee dañ may xas wala buñ ci duggee dañ may wax lu waxuwul c'est la réalité lolu mo ci am.

dénonce ton port. dénonce ton port nous xam ni pour le droit de la personne. ils ont brisé beaucoup de carrières. alors mais nous disons que tey kenn taxaw nii lii li xewna te ma wax premier jour ba musta changé kenn duma ni Adji Sarr changé na bu amé ko Ousmane version mo fi journaliste nga génne na ay archives ci livre bi. moo jëkk a wax ni Moustapha xamul fuy Sweet Beauté faa dem ba waat ko ci kaamil ci waa këram taxaw ñi Sénégalais yi dama doon faj sama ndigg ñëpp xam ne loolu amut te bu doon faj digg sa am na fa leen fu ko mën a faje ak leneen ak leneen wax ci la nga xam ne sax waxu wut mais Sénégal yi mosuñu nangoo gis yooyu nga xam ne Ousmane ko def na ko waaye bu ñu gisee ni que dañ ni Adji Sarr mooy fenkat bi lan moo tax yow nga mën a gëm ki nga xamee ni moom la mu waxoon jógu ci nga bëgg ni ko ki nga xam ne nag lu mu wax tey bu subaa wax leneen nga bëgg a gëm kooka foofu mooy far parloo bi. mais mais mais parce que aussi gis nga Maimouna fii dafa am la nga xam ne daf fi am dans notre moo di baal ma masochisme euh, daf fi am ba nga xame ne que kilifteefu góor wala góor baatam koowee ci baatu jigéen daf fi yomb ci ça la vérité il foog aussi ñu nangu ko. une société qui culture mais on a parfois une société très misogyne mais justement parce que l'autre que Japonais ay sar exemple exemple féministes qui droit de la femme de quoi défendre jour bi histoire à Ousmane Sonko une semaine après dans la télévision nga yor rechercher des images les femmes de pasteur de c'était Ousmane Sonko seen kër ñoom ñëpp dañoo muuru imposer seen bopp muuraay toog ci Ousmane Sonko tok ci fa tey ñaan jigéen ju bax ni dafa ni la wara mel jigen ju baax dafa am diine dafa wara am li est-ce que loolu fi indi diine voilà la responsabilité de la société donc motax tax su fekkee tay japp nañ ni que aji sar may nañ ko buntu bu mu mën mais euh, elle avait un, procès, elle avait des juges, elle avait l'opinion nationale, internationale. Et puis, le, récit, il est bouleversant, il est poignant, mais pourquoi donc Mais elle ne pouvait pas dans un procès. non, elle, non, mais, un procès, le procès n'était même pas contradictoire. Ouais mais elle aurait non, pu non, se replonger. Ouais, mais, non, mais, elle aurait pu se replonger ouais, dans ce récit-là. Mais dans ce récit-là, ouais, mais xam nga aussi Maïmouna journaliste nga yow booy commencé interview ku la jox rek booy ma interview da ngay commencé ci question yenn di yéeg di yéeg di yéeg ba euh, la la ñor nga toj yax xam nga inter ngay defee interview donc sa fil conducteur interview non la est-ce que Adji Sarr jëm nañoo xam nu mu fumu mu jógee bokk ak fumu mu ak nu mu

l'histoire d'Addis Adji un violent réquisitoire contre notre société mhm. ci récit les tares de notre société la pauvreté la mhm. précarité euh, les jeunes filles comment issues de certaines familles comment elles sont laissées euh, à elles-mêmes mhm. euh, yu Bare, en fait en Adji Sarr nous nañu le procès de la société sénégalaise mais là, nan expliquer le fait que ce récit poignant-là, où elle retrace les faits, où elle parle de tout ce qui s'est passé, de Ndeye Khadi, euh, de, sa, de, certaines de ses parents, de tout ce qui s'est passé au salon, et que juge bugno à la fin de la fin, il disqualifie les faits de viol, il disqualifie les faits de, de, menaces de mort. Là, moi, euh, euh Non, euh, le, juge juge coup, pour rendre verdict. Euh, man ne sais pas parce que xëy juge bi intime conviction la euh, mais encore une fois wax la ne la que waxtaan magistrats ya nga que euh, partager le message jàpp naa ne que livre bi hmm, bu

dina demee neneen parce que da ngeen di faté lén na Adji Sarr biñu biñu biñu biñu écarté l'inflation de elle a craqué elle a pleuré elle a dit que on m'a trahi wala on m'a pas bien jugé xam nga la wax elle était déçue de son de son jugement parce que elle est intimement convaincue que limi wax deug la te mom doli ci lenn hmm? ni la hmm? aji sar bi nga xamé ni hein? tey aji saarum tey mii bu taxawaatoon procès dina taxawal boppam leneen te di nga gis ñeneen ña nga xam ne ñu dul aji saar ña nga xam ne tey fi mu toll taxaw nañu la ñu woon mooy ñëw témoigner wala ñëw wax pare nañu pour def ko. alors euh, on, on, procès bi am na. Mhm. ñu ngi nekk ci benn situation boo xam ne euh, elle est elle inédite. Mhm. Euh, un procès en contumace. Euh, ñu ne c'est invraisemblable euh, une condam une condamnation Euh, même si ñeneen ni def nañ euh, appel euh, la décision a été publiée euh, tout ça toute la procédure a été faite mais ñu ngi nekk ci benn ba tey benn imbroglio xamuñu mbir mi fan lay tàbbee fan lay tàbbee géej je vois que yaa ngi interpellé l'État du Sénégal di ko naan na jël ay responsabilités am. li tax ni état bi na jël responsabilité modi décision de justice président mo wax ni dañ ko wara appliquer ministre de la justice wax ni ko wara je les prends au mot kenn saxalu len suukar bañ koy wax biñ ko wax ak léegi yàggul ci ay médias sénégalais ak des médias étrangers kon ad dang len di sen seen bët di leen xool c'est leur responsabilité ñoo ñoo incarné état bi mais fi sen responsabilité gëna a modi moo yow li Ousmane Sonko taxaw wax ko ci biir Sénégal ñi woo koo wax man ñi ma ko wax keneen ñi wu koo wax wala boo ko waxoon tey caabi féete la ginnaaw wala su ba ko waxoon caabi féete ma ginnaaw Ousmane Sonko moo taxaw fii ni damay jël deux cent mille jeunes nañ dem pale génne président bi xam ne dañ koo fal boo ko waxoon tey doo féete euh, euh, doo sa kër Ousmane Sonko moo toog fii mu ni dem leen ngeen taal kër ay nit jël milliards ya fa nekk boo ko waxoon doo faraan sa kër Ousmane Sonko moo taxaw fii saaga fi ay magistrat wax leen lu ne boo ko waxoon doo fanaan sa Barthélemy Diaz Roy ba fi outrage à magistrat dañ ko tëj plus de six mois Ousmane Sonko des magistrats qui ont baissé la culotte euh, le, jour de la condamnation de Khalifa Sall. oui mais justement dañ ko dañ ko six mois est-ce que le Barthélemy Diaz wax moo Ousmane moo a Sonko donc politique de dugg ci non non mais non dama la bëgg a wax rek ni la dañ koo may la nga sénégalais kon sénégalais ne sont pas égaux devant la loi parce que l'État la état l'État a fait preuve de couardise et de lâcheté Nous am seeni calcul xëy na dañoo bañ colofto dañoo bañ ay dee xam nga cal état buggoo mu am coow buggoo ay mort mais ay mort am drame bi am ci affaire Ousmane Sonko le parcours politique d'Ousmane Sonko est jalonné de cadavres et de cadavres de jeunes. Il y a plus de 50 personnes mortes du fait des provocations et des d'appels insurrectionnels d'Ousmane Sonko et des appels à la violence de Ousmane Sonko. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport de force qui balance assumé un peu publiquement. Euh, de son, du, côté de, Ousmane Sonko C'est-à-dire, nit nek demba euh, la paix social, ak la stabilité mu am lo xamné ci situation am la dépendre. est-ce que du rapport de force boo xamné ne man la euh, moom a l'état l'état a failli parce que buñu waré Ousmane Sonko tribunal ñu lay wo tribunal lima wo di wo sama morom amul ben responsable politique buñu massa wo tribunal nga duma wuy ji wala nga di da ngay genn damay def trouble à l'ordre public wala nit ñi dañuy dugg seen biir kër kenn du ñu may génn wala kenn du liggéey école yi tëj commerce circulation bi ni mais analyser li li li indi lolu hmm. non Du indi moy li ma wax. doole amna doole. bu bu 60 jours sawi buntu kon état bi représentativité bu tax hmm. Hmm. Euh, quand il est en difficulté euh, le pays bouge. non représentativité am capacité de mobilisation. ak ñi nga xam ànd nañu moom xëy na pare joxe seen bakkan kenn du ko weddi kenn du ko contesté mais est-ce que état war naa dellu ginnaaw wala yaccaaral ci lu mel noonu xam nga tey Ousmane Sonko bu ci fekkee dafa mën a def li mu def dara fekk ko ci ndax état boobu war naa mën a amati sañ-sañu keneen def lu mel noonu wala lu ko lu koy yées nga dal ci ko mais état bu dugalee politique ci ci ci ci ci judiciaire mhm. mu jàll contre Khalifa Sall. Mhm. mu mhm. contre euh, Karim Wade. Mhm. est-ce que Karim Wade ou Khalifa Sall dañu woon du tribunal. non non non non est-ce que mosuñu Non, non. mais mais mais est-ce que Khalifa Sall et Karim mos nañu aller déloger le président de la République. Non, Khalifa, on avait dit Dakar en feu, il a dit pas question. Ah, ah, euh, Karim Wade, même chose, le PDS, ah, mais, ah, pourquoi condamné. Pourquoi yo bini... <laughs> Non, non, non, non, Fimenyo, moi, Bini condamné Karim Wade, euh. le PDS était encore très fort. Et pourtant, Karim est allé subir sa peine. Mais euh, état bi tamit est-ce que bu nee politique bu bu bu bu bu bu justice day day day day jaar ci ci ci fenêtre bi est-ce que état aussi politiqué wul dossier bi ba nga xamné mom tamit état dafa piéger bopam ba amatul ben marge de manœuvre bi aussi politiquer dossier bi c'est-à-dire euh, même ci niñu dérouler procès bi y a eu des calculs politiques parce que si ñu ko condamné par contre contre contumace. Si hmm? ñu ko bu ñu ko def ko procès en contumace ñu condamné par y' a un calcul politique Il euh, y' a un calcul politique derrière. bu ñu ko nanguwul bu ñu ko bataille arrêté ba tey. Hmm? Euh, que mu acquiescer euh, et que toute la procédure tombe et que nous continuons am une tribune. tout ça c'est des calculs politiques. état état de droit warul avons ci calcul politique. respecter opinion mun naa respecter sa opinion nangul la ko parce que man yàgg naa bind ni que dans cette histoire là l'État a fait preuve de lâcheté du benn du ñaar dans cette histoire l'État n'a pas pris ses responsabilités du benn du ñaar dans cette histoire là wax naa ni que l'État may na Ousmane Sonko lu mayul kenn loolu dama ko yàgg bind bind ko ci livre bi bind ko ci livre bi wax ni li nga xamee Ousmane Sonko def na ko Sénégal waxuma la Sénégal rek kenn mosu ko fay def

nanguwuma ben yoon nanguwuma ben yoon que ñu nasaxal l'état de droit nanguwuma ben yoon ñu agresser la république nanguwuma ben yoon ñu may sénégalais ba nga xam lu ñu ko mayul benen sénégalais ça c'est une position personnelle que j'assume qui ne pas qui peut ne pas être la position xëy état paramètres ya am ak information yi amna ko man aw boko man damay wax en tant que citoyen di wax li nga xam moy sama yëg yek ak li nga bëgg ci sama réew man nag damaa jàpp ni bu bëggee damaa nangu bëgg nekk démocrate damaa jàpp ni état dafa war a yemale ay citoyen dama jàpp ni bu ma bu ma jàqee wala bu ma tiitee état ma war a protéger état ma war a assurer sama sécurité mais sama sécurité l'état na l'a pas assurée. te menacé wuñu fii dañuy taal sama kër ma damaa mujj jël sama ay responsabilité wut sama ay bodyguard ni ku ñëw sama kër de xëy na mën na koo taal waaye bu mu bu mu ko nettali bu mu fekkee nettali ba. est-ce que te ña ko ña doon menacé di ko def mais état xam na leen mais état da leen fi bàyyi c'est pas normal et c'est pas acceptable ci loolu laa bëgg a dikk ak Maimouna gis nga fii amul nu ñu ko mën a rafetale wala nu ñu ko mën a waxee hmm? l'état du Sénégal n'a pas été à la hauteur de se mission ils n'ont qu'à se remettre en cause dans cette histoire là li xew fii mun a xew ci beneen réew te xewu fa France gi dañ ko ëpp démocratie est-ce que ñun ñëpp France nous respectons France droit de l'homme affaire Naimi vous avez fibre barki Dembo ils ont il y a plus de 700 personnes. Ils ont lancé les mêmes procédures. Ils ont lancé des procédures. 700 personnes ont été en prison. Quels sont les prisonniers politiques Ceux qui ont brûlé des bus, brûlé des tramways, brûlé des mairies, volé des magasins, de 700 personnes, jugez en procédure d'urgence, condamnez-les. Quels sont les politiques Gilets jaunes tous les meneurs il faut maintenant le le maintenant il faut aller à l'Elysée. tous ces gens-là ont été arrêtés condamnés te gisoo responsables politique français pour défendre les wala ko ONG bu ni ay détenus politiques lañu ñun dañu la démocratie France. on voit même euh, y sortie qui est intéressante la sortie de Marine Le Pen. étonnant pour euh, une adversaire euh, irréductible euh, du pouvoir en place. Euh, elle en appelle à la défense des institutions et de la République. ça ne doit pas être étonnant. Parti politique doit concourir au suffrage universel dans le cadre républicain l'homme se posture bërki Dembo Jean-Luc Mélenchon ba mu fi que oui les casseurs c'est des révoltés mais toute la France la politique dal ci propre parti dañ attaqué pas une posture démocratique ce n'est pas une posture républicaine ba mu dellusiwaat ci wax jooju est-ce que ce qui fait fi opposant bu Ousmane Sonko est-ce que gis organisation des droits de l'homme bu fait taxaw ni Ousmane Sonko wax des opposants qui ont pris si ah, mais non mais non mais enfin beaucoup. il y Pape Fall. Alassane Sall mais Abdou mais ils ont subi les foudres. ah mais justement euh, mais ils ont subi les foudres Ils ont subi suba non mais si mais mais mais. simplement jamais à dire ce qu'il pense c'est déjà rassurant et c'est une bonne chose et c'est tout à leur honneur lolu en démocratie parce que nga wax politique yoy société civile def ko médias yi def ko ñu taxaw ci protéger état de droit mais justement dama nga nga bon. Attaquer mon média yi. Mm-hmm. dafa subtilement corporatisme oblige. Mm-hmm. mais je me que ngay traiter la société civile de société civile euh, rentière des tensions politiques. vous n'êtes pas trop dur avec la. société civile non du tout au contraire je suis trop indulgent. Sénégal a une société civile. y a un problème il dem tribunal ñu tribunal, il faut classer le dossier il ne faut pas le juger est-ce que c'est une posture de la société civile société civile Sénégal mo taxaw déposer dossier candidature violer la loi on met de côté les procédures pour faire participer tout le monde. c'était au local. au local la société civile si ça arrange on dit au nom de la paix nañu lem loi bi de côté pour dox li nga xam par exemple quelqu'un comme Aline June, je l'ai écouté avant-hier il dit conditions yi ñu ba profiter profité à Karim Wade et à Khalifa Sall waroon na profité à ki nga xamné ne moom Ousmane Sonko Ousmane Sonko doit prendre part à cette élection. non xam nga lolou mooy yëfu nga bal ma expression bu ko du ko wax sax du ko parce que day du tegginu Karim Wade il n'a jamais refusé de comparaître devant la justice Khalifa Sall musul bañ ni du ma tribunal. dañoo nangu dem tribunal ñu juger len ñu utiliser seeni voie de droit ba mu jeex ñu am grâce ba mu jeex ñu sàkku leneen procédure ya dox mais ki taxaw ni dama wuy ji tribunal respecté moo benn institution la décision justice ne m'engage pas euh, procédure bi sax jeexagul nga bëgg a taxañ loolu lépp nag ci am réew ba xam ne dañuy réew de droit la ni nañ ko malgré tout na ñëw bokk au nom de quoi mais loi loolu mooy loolu mooy non non foofu loi amatu fa. mais application wu loi dafa war générale et impersonnelle ci mbiru dialogue bi dañoo eh, gis ne eh, eh, dafa ndànk dugg ci débat boobu si dañoo gis ne euh, dañoo gis ne quand même les modifications sont ciblées de sorte à permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade de pouvoir concourir est-ce que mënuñu woon def lu large. ku ci dugg nga dugg ci ku ci bokkul bokkuloo ci. non boo def nañu modification ba nga c'est ciblé. je partage totalement li nga wax te man d'accorduma ci lu mel noonu procédure ñuy doxale noonu état d'accorduma ci mais la ñu mën a appliquer noonu mënuñu ko appliquer fii xam nga tu sais procédure aussi dafa am il mu nga jeexal procédure topp ko grâce boo ko bëggee may nit ki. foog mu éppiser tous tous les recours foog foog mu épuiser recours yi wala euh, procédure décision bi nekk décision définitive ah na naka nga mën a appliquer la nga xam ne ni yow loolu yoon mayeegula ko nga bëgg ni xam nga loolu mooy. taxañ mbir yëkkati loi tegi ko teg fële te loolu bu buñ gis nga loolu euh, bu ko réew bu ko état bi defoon dina créer un précédent dangereux. mais y aura des précédents ah, dangereux. ah ben justement. y en a tellement déjà may a loolu nag la ñu war a éviter. loolu la war a éviter a dikk di def la nga xam ne defu wut ci démocratie wala defu wut ci état de droit waruñu ko gis nga euh, li nga xam ne ni moo. au Sénégal dañuy dem démocratie des petits arrangements. entre politiques entre on oublie les morts. on oublie si on oublie les morts on oublie les citoyens lambda muy yow politique bi politique bi lu ko dama la dañu commencé waxtaan man la amna la nga xamné dégg nañ ko fi bu ko benen sénégalais défon démé na nenen dotul légitime nga gëm sa bëtt ci lenn li dal ci kaw ñenn ñi té lolu moom la wax ne euh, bu ma yëkëté sama kàddu ci lu mel nonu la ko jumalé mani sénégal am réew la ci adina bi waru ñu mëna nangu sénégal di doxé na nga xam ne day wuteeg bu ñu nawee ci suñu démocratie lañu nawé nawee bu ñu nawee suñu état de droit lañu nawé nawee dañuy ñëw fii àddina bi ñëw di fi jënkat yi di fi jëlé ay magistrats di leen yóbbu ci adina bi hmm? qui impulsé. qui impulsé cette mauvaise dynamique là. Hmm? Euh, le le le c'est l'État et à la tête de l'État c'est le président Macky Sall. parce que ni ñu doxalee mbiru Khalifa Sall doxalee ko mbiru Karim Wad avec tellement d'injustice et d'incartade judiciaire mm-hmm. euh, même ci dossier Ousmane Sonko. il y a eu moi je parle pas des faits mais il y a eu des des il y a eu des injustices. Euh, ba ci barki Dembe, mm-hmm. euh, nous le blocus chez lui. Mm-hmm. amul ben ordonnance judiciaire. quand l'État enfreint la loi. lan nga non non je ne suis pas sûr franchement que blocus këram état enfreint la loi. ah non non non doucement. blocus dafa am la mission de police dafa am. wa mais dafa wara am dafa am un cadre législatif et administratif. quand l'autorité de police de police prend une mesure de sécurité publique am a ci droit cette mesure de sécurité publique là il il y a un acte qui a été pris ou qui devait être attaqué ou pas mais dama la bëgg wax ne rek bu généraliser une situation li nga wax état de droit ak respect des mais balaa ngay ñëw ci balaa balaa ngay dem ci état de droit Madiambal mm-hmm. Mm-hmm. police bu la jàppee mm-hmm. def la garde à vue mais tout ça c'est normé oui boo defee euh, quarante huit heures ah ñu ñu nekk di la defal ay retour de parquet boo demee parquet au delà d'une certaine heure ñu ne ñoom amatuñu droit garder la ñu def le retour de ñu def la retour de parquet avons enfreint la loi donc devons enfreindre la procédure bu mhm. l'état ou la justice ne doit pas se permettre d'enfreindre la loi dañu devons nañu euh, euh, def résidence surveillée def résidence surveillée dafa tu prêches un convaincu on ne dit pas qu'il faut pas le faire je nga da nga euh, Karim Wad. pour te dire combien moi je suis attaché au respect de l'état de droit bari ña nga xam ne tey sur l'affaire Karim Wade taxul nañ ci jël fi position yi ma fi jël la crise ne me paraît pas être une juridiction normale et dama ko bind assumer publiquement Il y a peut-être qui sont des peut-être des gens du pouvoir qui ne comprenaient pas ma position mais que j'ai assumé parce que xam nga liy protéger citoyen muy yow di man moy l'état de droit l'application de droit ce n'est pas parce que le régime quel qu'il soit viole l'état de droit violer les règles du droit nga war ci y a gëmm bët koy joxe ni ko li du noonu bis bu yàlla sàkk bis bu yalla sak damay jël ma des positions ala dans ce sens là en disant que li doxut li du noonu. regarde le cas Alioune Sané. Mhm. personne ne comprend manifestation interdite mu dem fa ay recours cour suprême fait aujourd'hui il décrète le mandat de dépôt mandat de dépôt pour lan. non non dafa xam nga parfois aussi ñun yi dañuy dégg mbir duñu jéem a xam la ca ne. non du dégg mbir. moi je me suis entretenu avec l'intéressé. non non tu t'es entretenu mais l'intéressé li ko neex li mu la bëgg a wax da lay wax xam nga ban que ñoom génnewuñu ko mais nañu xam nga euh, da ne doo ko wax

da ngay dikk da ngay viser benn infraction. fee yi nag nekk ci ginnaaw. fee yooyu man xaw ma ko wax dëgg yàlla ah xam nga euh, Aliou Sané dëgg-dëgg bu dee lu koy sauver man kenn waruma cee jiitu ndax ba mu nekkee étudiant laa ko jël sama rédaction muy liggéey ak man ba mu pare formation ma employé ko ba mu dugg ci Y'en dem defi leneen am na lu ñu seq ci teraanga ak kóllëre kon koy défendre war na ko bal défendre mais aussi bu may défendre damay défendre luma xam gis nga fi ba ñu ni diw def dara ñu gis mu def leneen maintenant li nga wax di justice di communiquer man bind naa ko bind naa fii nii il faut par exemple que la justice communique que même qu'il y ait un porte-parole de l'institution judiciaire comme xew mais un procureur commencé nañ ko léegi sax mais systématiser wuñ ko di def ay points de presse di wax naan léegi lii moo xew te loolu buñ fekk chaque fois buñ ko defee day indi lu mu ci citoyen la communication beaucoup ñun journal dañ ko réclamé. réclamer que la justice communique mais parfois la les magistrats ils ont dossier dossiers ci parce qu'ils sont tenus par l'obligation de réserve Dès que gis magistrat ñu koy yekk lu ne mais mu tànqamlu du mën a wax te xam na ni que wala ñi xam li ci xew xam nañ li koy waxal dara amu ci mais du mëna tontu donc il subit les foudres d'une opinion publique et si ce magistrat n'est pas défendu par l'État dañ ko toog di ko seetaan mais écoutez day tax ba nga xam ne magistrat mujj ni est-ce que man man maay seen dof ba di dugg ci la nga xamee ni tey euh, man dama ciy nekk man kot am sama njaboot ñuy attaqué sama njaboot wala di ma wili pande état bi taxaw di ma seetaan est-ce que l'État a assez de protéger les magistrats et les policiers et les gendarmes mais, mais, Parce qu'ils ont des familles, mais, ils ont des droits. Mais le blocus, levé mhm. Personne ne comprend. Mm -hmm. euh,

Ousmane Sonko génnut hmm? da ko bañ ba porte parole am xaw ma euh, chef de protocole am daal ni bu kenn ñëw seet si ko ku dee yow da doon jooy ni da bëgg a génn dañ maa bloqué tëj ma sama biir kër maa sawi ñu ne la léegi mën ngaa génn nga ni nga toog sa biir kër ni bu ma kenn seet si mais amul lu ko ah, euh, cette cette cette là euh, est-ce que ce n'est pas le fruit de négociation la levée du du du du blocus euh, est-ce que amul ay mbir yu ñu nekk parce que fan yi ñu ngi doon wax wax deuxième dialogue Pierre Atepa Goudiaby tok na fi mhm. moom nee na Macky Sall ak Ousmane Sonko ils doivent se parler y mhm. beaucoup de bonne volonté yu bien que les tentatives ont été fructueuses et infructueuses mhm il y a des gens grand ont da des am que négociation décision de justice bu dee état de droit lañ non sur le principe là. non non non mais sur non sur le principe. sur sur le principe les faits. mais mais mais dans la réalité dans la réalité je peux te dire que négociation amu fi. Macky Sall n'est pas dans des dispositions de négocier pour quoi que ce soit avec Ousmane Sonko c'est ça la vérité. Aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. je te le dis, à mon niveau d'information, je suis formel. Il n'y a aucune négociation de quelque nature que ce soit entre Ousmane Sonko et Macky Et le pouvoir. Le pouvoir n'est pas dans des décisions, dans une logique de négocier quoi que ce soit sur l'application de justice. C'est ça la vérité. Les gens ne peuvent sortir ce qu'ils veulent et faire dire ce qu'ils veulent. Mais taille, les gens ont d'autres blocus levé nañ ko Ousmane Sonko ngi biir kërëm nanguta a génn nee na bu ko kenn seet si jéem koo seeti yow nen la bul ñëw dañ ko privé ay droit ni bul génn léegi nee nañ ko léegi police levé na levé na blocus bi mu toog biir kërëm ni bu ma kenn seet si demut fenn mi ngi biir kërëm. mais des tentatives y en a eu. Mm -hmm. euh, d'abord je je je je m'étonne mm -hmm. que nga ébruité par exemple euh, cette tentative euh, de de de de, de waxtaan qu'il y a eu boo xam na Gagny Sakho euh, mom moko initié pourquoi nga jël la responsabilité nga génn loolu alors que c'est c'est un événement qui aurait pu euh, rester caché non secret vous savez dans dans un état il faut que les gens assument leurs responsabilités hmm. il faut que les gens assument leurs responsabilités xam nga hmm? cette histoire là am plus de 50 morts bis bu yàlla sàkk ngay xamb nu mu gën a tàngee di joxoñ ay doom aadama naan leen dem leen deewi ci te doo génne sa doom yow doo génn ay doomi jàmbur di dee ñu ni déet nga ni leen yéen ñi dee bu ngeen dee seen ndey juraat ñu ni déet nga taxaw devant les sénégalais ah nga ni dem leen manifester nga ni policier xajal len sama dom dem jàngi ji école ay domi jambour di di manifester ji nga ni sama dom ab bak, bag te fekk ay domi jambour waron def bak de nañ ci man ba pare nga taxaw goudi ngay yonde di dox di dox nan nañu est-ce que mo est-ce que mo mo yónnee. est-ce que du des initiatives individuelles personnelles. wa mais man nee mo moo dama ni. dama ni dans la ronde de la ronde des visiteurs du soir ku leen yónni ak ku leen en tout cas lima ma wër ña ko waroon a yëg umpale wuñ ko bu ñu ñëwul it wuñ ko te nag xam nga man may mun a journaliste la te damaa am samay feem mën naa junj dara dese lu bari. kon waxagoo dese dama leen ni mën naa junj dara lu bari mën naa junj dara te dese lu bari. waaw doo wax lu des. non du ma du c'est pas la xam nga ay nit boo koy léeg-léeg euh, da ngay am la nga xam ne danga koy gànnaayoo faga fagaroo ko euh, doo xëy rek mbir xew nga daal di la nga say bal yëpp nga génne ko. mais mais mais xam nga lancé na. dox na loolu. mais ak keneen ak ñeneen. mais lancé na waxu ci. Hmm. waxewu ko. Hmm. doxewu ko. tey deful benn déclaration boo xam ne hmm. mënoon na la pousser. nga nga nga nga ressentir le besoin de démentir. Euh, je ne comprends pas pourquoi de décider hmm. euh, plaquer euh, sur le livre pour euh, euh, muy muy dénoncer le fait que nga nga nga révélé wax pas wax que non il s'offusque que nga parce que non xam nga xam nga depuis deux ans moom duma liir ndax daf xëy na daf maa jéppi te tëral bu mën a ñëw sama kër ñaari yoon loolu mooy yëfu naa feq am déet yow nga ne nit ki du ma ko liir ndax xëy na nawloo woo ko wala jéppi nga ko te ngay dox guddi di ñëw këram ñëwul ñëwati ñëwati loolu du yëfu naa feq xam nga il faut que aussi nit ñi xam ne que ay tequñu ko ay dof ay nawle lañ ko seq senegal fii jàkka yi lëg la kenn mënu fay jaay sa morom guddi nopp il faut qu'ils arrêtent mënuñu dikk fii du ben du ñaar buñu diké xey def les déclarations les plus intempestives ils brûlent le pays ay doomi jambour di dé ñuy def lénen il faut les dénoncer c'est les dénoncer c'est faire œuvre de salubrité publique mais pourtant am na ñoo xam ne. dox nañu. Mm-hmm. Euh, mais yow de pourquoi révéler woo seen mm-hmm. identité am na ci koo xam ne nga tuddee ko Émile. Mm-hmm. Euh, nga ne pour pour pour non dama ne dama ne pour sa pour sa sécurité parce que aussi bugguma que nga xam ne xam naa ne que il court des risques sécuritaires ma joxe trop. man je man je pourquoi nga nëbb ñenn tur ñi. man parce que vous choisissez de de de de. bu kenn ñëwee bu kenn ñëwee ni ma dama laa bëgg a seet si ma jox ko rendez-vous ñëwul mais lu may wax trop.

barki Dembo Ndiaye la lay wax. ma ma gis février 2023 lolou aussi daf ma daf ma daf ma intrigué mooy li ma la wax ni la duplicité des gens la duplicité des gens man damay xam nga lolou moy xam nga ça mérite d'être connu des Sénégalais aussi parce que parfois aussi buñu ñu nax léeg-léeg damay toog hein, gis Ben Sénégalais mu taxaw ci télé bi yëkëti yenn kàddu di wax ko ree daf may japp est-ce que la politique l'on la wara a ak wax Sénégal lu nga les ne pour la réalité ak nax ji moi je refuse je refuse Je ne nit pas set mais kuma ci set dama wax li nga xam nga que da ngay man la lay wax am bëgg a Macky ñu def terrain ne ko yaay kan bu Macky Sall neutre soko bëgge da ngay ne fekk pas ko. fam par exemple. En 2013. Hein? Non, non, ça c'était pas. Non, non peut-être une. Euh, ça 2013 c'était autre chose. 2013 c'était autre chose. 2013 c'était l'histoire de Taïbou Ndiaye quand je l'ai rencontré et, qu'on parlait de l'affaire Taïbou Ndiaye. Mais entre-temps, des gens veulent organiser une rencontre entre Macky Sall et. C'est Macky Sall qui a décidé des conditions. Mais oui, mais pourquoi pas

contre Ousmane Sonko, contre Pastef, mm. anti-républicain, euh, nga connecté ko avec les réseaux salafistes euh, les courants islamistes ñi ko ne aux législatives et en 2019 euh, et puis un indépendantiste assumé nga def des connexions entre lui et le et MFDC vous n'avez pas l'impression de trop charger la personne. c'est très violent non non non ça peut être violent parce que les faits sont violents Nous wax dafa telle date telle organisation jàppale na Ousmane Sonko li la wax Ousmane organisation bobu salafiste la wala organisation MFDC la bok wala organisation li la waxuma ci waxantouma livre bi lu ma ci wax dama joxe firnde. non c'est c'est c'est détaillé. il y a une chronologie des des faits. mais mais mais mais est-ce qu'on peut me reprocher est-ce qu'on peut me reprocher d'être factuel et de ne et de d'avoir relaté que la vérité xam nga tey li ma doon li doon neex moo ne ñun ma li ma wax du dëgg mais Ken du li ma wax du dëgg du ni déclaration Sangam amut kenn du déclaration sangam niñ ko waxé du non wala kenn du déclaration sangam di waxu damay joxé date bi joxé circonstances yi. reproduire wax bi kon bu fekkee wax bobu dafa violent déclaration yi am mais kon la la responsabilité moy ki nga xam moko def man xam luma def dama def un travail de récollement moo di dajale ay mbir ni lii tal date la xewon lii tal date la xewon li la wax c'était important que je fasse cet exercice là parce que dafa la frapper, frapper ñu bari dafa am faut kilifa livre c'est en lisant l'ensemble la trame que j'ai mesuré la gravité de la situation xam nga vous nit affaire nga mais de 2018 deux mille dix neuf lii la waxoon deux mille vingt lii la waxoon deux mille vingt et lii la waxoon lii la waxoon lii la waxoon nga teg date bi teg wax ci parce que damaa damaa transcrire wax ji sourcé ko journaliste nga amul benn fee ba nga xam ne wax naa ko ci ba nga xam ne boo defee sa moteur de recherche doo ko gis moo tax gis nga avant livre bi génn bañ ne ma jàmbal dégg livre ñu ngi doon tifaaree saaga samedi ak dimanche amul lu ma déglu waaye ba livre bi génne déggatoo kenn wax. parce que dama ko teg ci ay faits yu précis yi nga xam ne kenn du ko dindi man dama lay wax ni may mun a ne la samay wax man naa bañ a neex nit ki waaye kenn du ko weddi. est-ce que doole boobu. Hmm? ngay jox Ousmane Sonko en relatant ces faits la est-ce que exactement am na soit ñaari mbir soit amuñu sécurité bu doy euh, amuñu justice bi euh, liggéeyul ci wàll boobu walla. Euh, justice bi peut-être trouver une ay ay connexion parce que boo lire boo lire affaire bi mhm. mais tu te demandes où on est mais justement fan la ñu nekk en fait non mais justement xam nga tey boo dee boo lire affaire bi xam nga dool yi boo dool boo liiree dool dañ ko inventé. non connexion yooyu yëpp ngay ngay établir. Mais parce que mooy am Madiambal yow toog nga avec des des meurtriers toog nga avec des vendeurs de drogue. mais. Quel mënul à partir de ça. Hmm? Euh, ne euh, def parce que un exemple euh, on s'assoit ah, avec des gens pas comment. on s'assoit journaliste nga wax Ousmane Sonko n'est pas un journaliste pour aller chercher l'information avec par exemple Salif Sadio n'est-ce pas mais dama wax Ousmane Sonko mo bëgg nek président de la République du Sénégal nek wala nek chef suprême des armées ñu jël ay soldats sénégalais gambi ray leen jël leen en otage filmer leen humilier leen mu naqari la naqari sama morom naqari sénégalais yépp amul classe politique ku ko waxul pas se défendre Pastef ñoo ci mandu te nga bëgg a chef suprême des armées benn ñaar Salif Sadio qui a fait ça qui est l'ennemi public numéro 1 du Sénégal contre qui court des mandats d'arrêt nga mën a dem ànd ak délégation dem seeti ko guddi néew ma lii la wax de mais seeti na ko ma ne c'est une faute politique loolu kenn du ko ànd ma joxe listu nit ña mu àndaloon la liste des treize personnes c'est dans le livre yi mu àndaloon dama ko du wax ju ñu inventé ma joxe dat bi joxe ña àndaloon te am naa photo nit ñi nga xam ne àndoon ak ñoom kon lu fe fee yu wér laa teg ma ni kon lan moo ko lëkkaleeg MFDC ba mu mën a jëflanteeg ñoom ka nga xame ni dafa bëgg boote réew mi Ousmane Sonko dolli ci teg ci ay wax yi nga xame ni moom moo fi indi sosole ay waaso moo fi ni Macky dafa bañ xeetu joola kenn du weddi ni waxu ko moo fi porté plainte Sénégal ak les Sénégalais de discrimination en l'endroit des joola xam nga loolu wax ji bu neexul te dégg tamit kenn du ni Ousmane Sonko waxu ko te assumé wu ko. Moi, c'est un leader indépendant assumé bi euh, assumé. Ousmane Sonko c'est le leader naturel qu'attendait la Casamance est-ce que daf ko dit? comment tu expliques. l'effet hmm? les faits à lui reprocher hmm? avec son quotient électoral. la dynamique politique Bon, 2019 Ousmane Sonko a fait une percée politique troisième je l'ai salué ici cette tribune politique ay jeunes la jël xëy ay nit nga xam ne bari leen naqari mu nekk ci contexte crise dama la wax gis nga ci livre bi dama la expliquer ni la Ousmane Sonko 2013 avant muy créer parti bi janvier 2014 daf maa laaj ne ma loo xalaat ci politique Sénégal ma ne ko tu un leader jeune si tu crées un parti ba nga ni fondamentalement day nekk un parti d'obédience jeune avec le chômage avec la crise des jeunes et le cas des diplômés man l'électorat moi je pense on a eu cette discussion là on a eu cette discussion Maniko. il y a de la place à prendre en politique peut-être que je ne m'imaginais peut-être pas qu'il serait ce danger là je ne pouvais pas me l'imaginer qu'il serait ce danger là mais il s'est apparu être un danger pour la République Il s'est apparu être un danger pour la démocratie. Est-ce que à partir de 2020, 2021, le radicaliser parce que 2014 ba élection présidentielle il euh, y a eu un approfondissement du débat politico-économique et, et, d'ailleurs les euh, journalistes yëpp euh, daw sukku bah, justement daw parce qu'on avait soif de, changement de, paradigme mais 2018 Ousmane Sonko taxaw fini Sénégalais on doit fusiller les anciens chefs d'État erreur de communication D'accord, erreur de communication d'accord mais la ah. la lan nga lan nga 2019 élection présidentielle sa radio, télévision nañu tam xam ñuy proclamer ay résultats Ousmane Sonko jël parole ni attaquer les Futurs Médias moko def am defuko moko def ñu ces partisans ont brûlé des véhicules des journalistes et ont attaqué des domiciles de journalistes on a arrêté la transmission des résultats. résultats le démocrate quand radicalisation Ousmane Sonko où le 2021 parce que c'est ça où il y a l'escroquerie intellectuelle parce que les gens peuvent dire que dañu xaar ba affaire Adji Sarr mais mais mais xam que de 2018. Euh, mhm. la déclaration sur les anciens présidents. Mhm. Euh, mën y de la fougue de débutant. Euh, élection et lendemain des des des élections mën y dérive politique mais boo les dérive langagière yu yi nga noté nañu quand même. 2021, et on peut avoir une compilation très importante de ces de ces déclarations euh, incendiaires de sa radicalisation. je te renvoie à mon livre j'ai fait une chronologie des sorties intempestives gravissimes de Ousmane Sonko depuis son entrée en politique Quand commencé où 2021.

maman man ko mais Ousmane Sonko politique ba légui ba waxuma la politique syndicalisme ba paré ba légui ci ay la Ousmane Sonko mo fi nek député Accusé ses collègues députés que accusé ay sénégalais porter plainte contre ñom dénoncer leen ci amul preuve am am amul nek député que garde dossier TF 1451 si signé ci contrat diko ko pour làqar ci am ca xaalis Alors, dara c'était avant 2019 avant c'était 2018 etc. cetera kon toujours l'intérêt de mon livre il est didactique tëbuma tëb ni soir 2020, dama commencé ba mu commencé ni 2013 laa dajeeg mom bo mu syndicalisme, syndicaliste mu bàyyi dem ubbi parti politique décembre 2014 ci ña conseil ubbi parti politique man ci la bokk ci waxtaan ba ñu amoon ci livre depuis lors ma suivre trajectoire am suivre trajectoire pas à pas Je suis agsi tey ba ci procès bi nga le août son parti PASTEF a fait une déclaration pour dire il faut faire un coup d'état son parti PASTEF l'a fait le 3 avril il a fait une déclaration pour enjoindre l'armée qui a scandalisé l'armée de communiquer yooyu dama un parti politique qui concourt au suffrage universel qui fait le 1er juin un appel au coup d'état mais Sénégal la am ñu bàyyi la nga c'est ce que j'ai dit moi j'ai rien inventé j'ai fait un travail de recherche documentaire et de compilation tel ko nag ni telle date lii xew telle date Ousmane Sonko wax telle date lii moo xew conséquences personne dama la ni ba ma bind ba livre bi génnee ba léegi doo dégg kenn weddi dañ ni miix parce que amuñu luñ ci teg. avant livre bi génn nag ci réew mi nga dëkk depuis bañ ne ma jàbbal génn na livre amul saaga bu xewul wala wax ju ñaaw ju génnut waaye ba livre bi génne nekk ci marché bi ku ne jot ci kenn saagaatul. au contraire dañ naan non non bu ko kenn tontu. parce amuñu naa ne gis naa ne. Euh, erreur a ñu ci livre Cheikh Yérim Seck bi. Mhm. Euh, ñu ngi éviter cette fois-ci. Mhm. ils ne se sont pas rués euh, sur le livre mais bon les gens ñi mu intéressé ñu ngi ñu ngi livre mhm. d'ailleurs ça amna ko wara jox ñaari exemplaire ndax <laughs> indalé nga ko alors on sort un peu de de ce livre en tout cas c'est un livre. Euh, parfois, il est, il, il, il, est, violent. Euh, voilà, je beaucoup lire, mais dans tourmenté. Euh, on sort de ce livre-là. Alors, nous sommes aussi, nous sommes en présidentiel. Mm-hmm. Alors, le président Macky Sall euh, a fait une déclaration du candidat. Nous choisi choisir candidat. Nous avons une audition. Euh, Amadouba, c'est Amadou Ba euh, ñooy candidat yi Ablaye Daouda euh, Mamboy Diao Ablaye Diouf Sarr Aly euh, Mohamedou Maktar Makhtar Mohamed Mahammed Boun Abdallah Dionne euh, boobaak léegi ñaari ayu ñu ngi xaar mais président mënul euh, le nom de son candidat foogoon nañ ne dimanche bi la koy def dimanche bi mu nous, ñu jël na avion voyager alors là, Le président a un problème pour choisir Euh, wala dafa ragal kawam tas bu defee choix. bon ñi nga lim ñëpp déggaguma ñu ci bari ñu wax candidat lañu. mais ils ont été auditionnés. Amadou Ba waxul ne candidat la mais am na nga xam ne xëy na am na ñu leen di waxal. wala jort nañ ni am na nga nañ ni candidat ah. lañu. bon mais euh, dama lay tooñ ci loolu rek di la wax naan rek euh, xëy na am na ña nga xam ni peut-être ñu ngi dencandi seen déclaration de candidature maintenant. président dafa bëgg dafa bañ këram tas man de wax dëgg yàlla bettuma parce que baxoon naa ko nee naa woon bu président nekkul candidat dina bari ay candidat yu jógee ci majorité présidentielle te bu ñu moytuwul candidat yi dinañu bari ba nga xam ne il y aura autant de candidats que de voix nécessaires pour aller au deuxième tour et il risque de ne pas aller au deuxième tour et d'offrir le pouvoir à l'opposition ou à un troisième larron qui viendrait de je ne sais nulle part loolu wax naa ko bind naa ko loolu la ñuy assister fi mu toll nii ci ngi waxtaan ci seen biir lu lu ñu mën a labirante ba am candidat bu mën a gagné euh, xëy na ñu ngi ci vraiment je ci suis pas dans secret de leur discussion mais tasaaroo bi ak xiiroo beeg ñaayoo bi wax dëgg yàlla bettu ma maintenant jox nañu ma Macky Sall mandat ni ko leen tànnal candidat candidat bu mu mën di tànn am naa yaakaar ne que dina am ñu ko contesté contestation dina bari dina yaatu am du yaatu loolu dinaa xaar ba gis da fay defone ay choix yu mu defone muy élection locale wala législative bam ko defé dañ ko contesté am ñu def ay liste parallèle ah mom néna mo bénir yenn yenn liste parallèle non non mais justement motax tax ma ne. ah xëy na Kolda ah mais wa mais amna yum ci bénir amna yum bénirul mais kon lolu amna kon contesté woon nañu ay choix donc bi aussi ma ngi xaar ñu contesté ay choix éventuellement.

sekk nak ña nga xamé ni man na leen ñaan luñ ko may lolu man na nek comme man nañ ko man na leen ñaan luñ ko bañal mais toujours est-il que élection yi nga xamné mom lañu jublu euh camp du pouvoir warna mëna jël ay matukaay pour and pour gagner pour faire ñu bëgg garder pouvoir mais aussi élection yu dangereux le pour président Macky Sall dama japp ni que bu fekkee tay sagan na ba tan ka nga xamé ni que wul ki mu tànnul gagné que mu tànnul te gagné koo ko gagné lu luy redevable de plus kon nag. dina ko écarter du jeu. dina ko écarter du jeu xëy na mën na koo bañ a écarter xew ëllëg kenn xamu ko waaye dëgg-dëgg. nga ne bu fekkee tànn bu hmm. parce que yow je ne <laughs> bu fekkee ne tànn na ku gañewul kañu tànnul gañe hmm. Euh, da nga am soupçon ne moom xëy na xolam mën na tànn koo xam ne euh, il ne remporte pas l'assentiment de la majorité présidentielle <laughs> muy benn cas et que qui gagné mën na doon ki nga xam ne Macky Sall du ko et que peut-être que kooku la waroon tànn. non enfin éventualité dañuy xam nga analyste lañu dañuy jéem <laughs> dañuy jéem a samp dañuy jéem a samp rek. ah seet sampal nañu sampal samp bi dafa yomb. waaw am lay jox exemple rek. ba xel dañ ko dund parce que il faut leçon aussi muy jëriñ ci àddina. Kenya président bu fa nekkoon uuru keñata la mu def ñaari mandat ñi bàyyi na nekkatul candidat hmm? vice président nekkoon William Ruto William Ruto nekk candidat Uhuru Kenyatta di ko duma la jàppale. jàppale opposant bi Raila Odinga William Ruto boobu mu jàppale wuloon gañe tey moo fa nekk diggante William Ruto ak Uhuru Kenyatta neexatul ba nga xamante ne réew ma fi mu toll nii mën nañu ko. ma ngay tagga tembe loolu éventualité la kon mu lay wax. Mm-hmm. exemple dafa bari ci àddina France nga xam man damay bëgg du dama toujours exemple France dikk nañu fi Emmanuel Macron Hollande jàppale wu ko woon. Macron a gagné. Macron et Hollande étaient complètement écartés du jeu politique. N'est-ce pas comme, comme, Chirac, euh, contre euh, Sarko. Comme, Chirac. Mais euh, non, Chirac, Chirac a appelé Sarko. Au contraire, il était contre Sarko. Chirac a appelé à voter Hollande. Donc, xam notamment le président qui choisir aussi na pas le choix est-ce que choix Bobo? c'est le choix le plus pertinent chef d'état sortant votre chef choix perte alors que un de Diop Muné, rapporter des faits je mhm. euh, euh Ismaël Madior Fall wax que Macky Sall compétence je lu euh, sentiment de l'État. Je à la situation Je nga euh, par exemple souvent ce débat a fait authentique euh, appel non authentique euh, avec des affidés qui m'ont donné euh, affidé président Macky Sall pas affidés affidé président Macky Sall et on s'attendait à un choix et le choix il n'intervient pas alors président qui n'est lui il dit qu'il va faire un choix de raison il va choisir un candidat qui va rassembler et gagner mais ci personnellement la bu doon tànn ban critère le choix de raison exemple appréciation Maintenant, appréciation pour vous. parce que dans les situations, situation le président a choisi le plus compétent exemple simplement Amadou premier ministre quand le président choisit Amadou premier ministre peut-être xëy na ñu ko doon xaar bariwul am nañu ko ñu gënoon a jege président. il n'était am na ñoo nga xam ne ñoo gënoon a jege président am na ñoo xam ne xëy na jàpp nañ ñoo gën a nekk xaritu président wala ñoo ko gënoon a jege ndaxte Amadou Ba booy seetlu bi muy dëkk premier ministre nekkatul ci gouvernement bi sax dañu ko génne woon mu tëb tëb brusquement ñëw hmm? n'est-ce pas hmm? maa ngi fàttaliku sax mas nañoo daje benn bis ah mais grand affaire fu mu jób man laa fu ma dajeeg yow de moo mutu foofu la jób Hein? <laughs> C'était pas évident. Ah, c'était pas évident, mais bon. Tu sais, je vais te dire une chose. Euh, franchement, Je euh, état yombul li chef d'état xam ko mais bu ku am un wala nga de le président de l'état, ak ci yenn la lu jiitu loolu wala même am nañ xëy mën nañ dem ci benn intimité ba nga xam ne sax mën nañ confier la nga xam ko confier keneen y a de surprenant. mais choix bi kan la kon da nga ko xam. non man mënu xam nga. non ci lecture bi nga def. non mais lecture bi ma def. c'est c'est qui est-ce qui incarne ce choix de raison. non mais bon c'est pas à moi de le dire bu ma bu ma ko xamoon du ma ko wax. mais donc non parce que du war a sax ma dik mën ni. Euh, non non non waxuma. de de nga nga génne ko. ci ay confession mais yow est-ce que président tekna ay signaux yo xam ne euh, am profil bum la jox. bis bu yalla sak mi koy def. ah. bis bu yalla sak président nga jox ay signaux. mais signaux yooyu journaliste nga yëtal may mun a. <laughs> mais xam nga tu sais may mun a xaw ma signaux yi lan la damay laccé non je veux te non damay ah. damay lay togn ni di blaguer simplement. signaux yi lan la damay tej di blaguer simplement li nga mu bëgg wax la du ko wax ah. <laughs>

signe la joxe. Hmm? ak signe yoy c'est en direction de qui. xam nga le président sañ. ma jox le dans le mille. Hein? ma jox le scoop. xam nga président kan moy candidat Maïmouna Ndour Faye. <laughs> xaw maa ngi defarowaat. ah ben justement alors <laughs> c'est un scoop alors voilà c'est vous dire. Hmm? wa légui kan nga jàpp ne. Hmm? bu nekkoon le choix de Macky Sall pour porter Beno Bokk Yakar la majorité présidentielle a des chances de gagner ou d'être au second tour parmi Amadou Ba Daouda Mohamed Boun Abdallah John, Aly Mamboï Ndiaye Mame Boye Diao euh, Diouf Matar Cissé Dès que nous avons na ci ñoo xam ne ñu nous avons nañ kan nga xalaat ne tey. ragal naa ah? ñu bari dañ gëna noël ah eh, ragal naa ñu bari dañ gëna dégg na tuuti rek mo def dama lay jox ben exemple may mun xam nga déclaration candidat ni damay nek candidat wala bëgg na yomb na. hmm waye ku wét xam ko la man ku wét xam sa bop ciow li fër fër yi man émouvoiruma am na ci nga dañuy wax rek pour bok wala ñu exister wala ñu mu nek élément de négociation wala pour exister wala pour avoir le buzz médiatique amna ci nga xamé hein même bu ñu leen yeewi woon du ñu am parrainage pour nekk candidat c'est la vérité xam nga aussi wax ji bu ñu ko yërëm mun nañu xam ne mënuñoo nekk mënuñoo am parrainage te ñu ngi cëfër cëfër naan dañuy nekk candidat am na ñi nga xam ne même bu ñu amoon parenage parrainage budget ba ñuy soxla pour campagne même bu ñu ko amee duñ ko ci def ndax xam nañ duñu gañee dara kon coow li dafay bëri mais bu cëppaandaw la jotee ah candidat yooyu dina am ñaxe dinañu dinañu dinañu gën a dinañ ils vont être plus qui a d'ailleurs heurté beaucoup de gens euh, nous avons xam un euh, sondage bi arrangé Nous ñu en tête de file à avec 54 mhm. euh, suivi de Ali Ngui, ou de Diallo Boun Abdallah John, mu nekk un quatuor mhm ñan nga kan nga ban profil nga xalaat ne. pourquoi nga bëgg ko yemale ci carte yooyu. non non peut-être candidat bu feeñul. non non non non ñoom ñoo non non. mais c'est factuel. ñoom ñoo génnee ñoom ñoo génnee sondage. pour donner une euh, étude d'opinion peut-être xam nga quatre nga wax bu ñu génne woon cinquième personne xëy na kooku am 60 pour cent. c'est-à-dire que je veux te dire simplement que instrument de mesure boobu. man gëmoo sondage bi. non mais enfin euh, sondage dans quelle base et quel est échantillonnage et qui l'a fait et comment on l'a fait. xam nga parfois aussi Sénégal dañu tàmmal la nga xam ne ni médiamétrie sax duñ ko def nañ ko war a defee wala sondage yi n'importe qui day xëy publier ay sondage am doo xam méthodologie ba doo xam traitement ba doo xam xam nga sondage ci am réew mu normal dafa am ay contrôle des instituts de sondage nga xam ne boo defee lu dul noonu yoon day dal ci sa kaw. mais fi yow tay bu la neex nga génne sa sondage bopp. damay gis waaw ne ne ne première. ni maay première ah, wala nga. non fani nak nag première sax. non fani mom da nga taqe <laughs> wax dëgg yàlla ça moom macha allah et je non franchement et je te félicite pour ça. non damay kaf rek. non non non non c'est pas la non non non moi je moi je suis très libre et je le dis je sais dans quelles conditions tu as commencé. et tu as fait preuve de courage, d'abnégation, de ténacité. Merci. C'était pas évident pour arriver là. Da nga am handicap yu bari moo di que xëy hein tu n'es pas né avec une cuillère dorée à la bouche tu es une femme fille, jigen bu fi tekki wala nga am fi ben cër bi euh, amul luñ la dul mm. hein duñ la yombalal dara. tu t'es battu avec une équipe di jóg ak daanu ba man nañ japp ne tay ah, machallah taxaw nga kon c'est un mérite. merci C'est un mérite. merci pour cette que tay nga dik non uh-huh. je vais ajouter. nga je ajouter nga tay Amadou Ba premier ministre qui veut faire une sortie attendue par tout le monde tous les médias du Sénégal et du monde voulaient avoir cette sortie-là. Pourquoi qu'il ait choisi de venir chez toi Parce que tu es crédible, parce que ta chaîne est crédible. C'est aussi simple que cela. C'est parce que tu es crédible, j'ai du respect pour ton média. C'est ça la vérité. Mais parce que j'ai du respect pour toi. Ça, c'est du professionnel et du sérieux. Tout Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, contourner là. Mm-hmm. Bonne Abdallah il a mené la campagne euh, législative de 2017 comme tête de liste. Mhm. Euh, en tout cas, de tous les premiers ministres de Macky Moti il a fait 5 ans. Mhm. Et c'est sous son magistère que l'agneau euh, matérialisé, Djemel Loup, petit plan Sénégal émergent. Mhm. Il est de Gossas, euh, même s'il n'a jamais concouru pour un mandat électif là-bas. Quelles sont ses chances Bon, moi, je ne sais pas. C'est chance en termes d'élection ou chance en termes d'investir par Macky Sall Beaucoup Macky Sall investiront. Est-ce que vous avez un candidat qui caporalisé Non. Euh, Macky Sall, candidat pour investir, c'est ce directeur de campagne, il a am ay atout. Mais le candidat aussi, il am ses atouts personnels. Ah, non, non, justement, tu l'as dit aussi. On candidat pour investir. il a am ay atouts. Euh, di nga am am un préjugé favorable ou bien di nga a compter sur un vivier électoral euh, au moins bu fi a fi nekk li ci dess pour yaa koy sa mais candidat bu mu ci mën aussi soutien Macky avantage la atout mais handicap aussi parce que tu vas être l'incarnation d'un mécontentement ou d'un bilan que les d'aucuns peuvent juger comme négatif donc kon aussi analyse bi est nga ciy ñaar yépp maintenant bon, gis naa mu turam génn c'est quelque part un nom sorti presque de nulle part parce que aussi c'est le troisième larron c'est la surprise du chef lu ne dégg na ko fi. mais c'est le choix du cœur. c'est le choix du cœur peut-être Waye damay fàttaliku aussi ni Boun daal bi fi jaaree ba mu tàqali ko Macky Sall ba Macky Sall premier poste premier ministre waxuñu ñu lan motax mu dem. xam nga bu fekkee da nga nekk premier ministre hmm? nga nekk jiite un gouvernement ñu dem ba président bi ni man ko soxlaatuma premier ministre kon yow soxlaatuma la ba damay supprimer poste bi am de loolu moo fi xew est ce que man sama xel nangu na logique logique na est ce que logique na kon yow nga nekk premier ministre ba dem nangu poste bi premier ministre ah waxuma la man ni la man ni demal xëy na mën ngaa sax man la dem mais damaa supprimer poste bi mooy kon yow amoo fi njëriñ je peux me passer d'un premier ministre Je vais nag dina jox lu premier ministre mais nous avons lire l'affaire sous un autre angle. oui euh, dans le présidentiel il paraît que le président euh, capital bu mon leader bi yow yaay premier ministre il y avait six candidats qui se bousculaient. est-ce euh, qu'il des candidats est non non y des candidats yu ko doon mettre la pression. alors nous utilisé John c'était la première fois ñu un un un homme d'État nga au taxaw di lire la lecture de lire le communiqué de ton message nous avons ko comme résilience comme nangul bu nangul euh, bu mu nangul Macky Sall et puis bobo tay kenn dégg mu xaas mais pour la petite histoire aussi Moustapha Niass defon na fi en 1983 ah ça euh, il était allé à l'Assemblée nationale défendre la suppression du poste de Premier ministre à l'initiative du président Abdou Diouf euh, donc c'était aussi une xewoon na fi bon mais li nga wax xel mën nako nangou nangu ni xëy dafa nangul président lepp xam nga ban nga ko déggee non waaye dal man li may fàttaliku daal moo di bu dal man dama la jox cër non non mais non non bu dal dama la jox cër dem ba xeyna na bi soxla soxlaatuma ne li ba supprimer ko parce que boudé dee par exemple ko dangulone supprimer poste bi muy del si poste bi xeyna kon boudé il en était satisfait est-ce que lu ko tax delloo si waatu ko kon xam nga bu sa analyse rek laa topp de sa logique la topp nek na premier ministre supprimer na poste premier ministre bi kon soxla soxlaatuma poste premier ministre je peux me passer d'un premier ministre vous demaat ba ci mu del poste premier ministre bu dee kay ce premier ministre là il en était totalement satisfait peut-être qu'il était logique mu ne ko del si de place en tout cas c'est pas pas ce qu'il a fait. alors non mm-hmm. euh, il est au gouvernement sans interruption de 2012 à 2020. n'est que ministre du pétrole n'est que ministre de l'industrie et des PME nek ministre de l'intérieur mon porté euh, la présidentielle de 2019 et d'ailleurs 2019 euh, après ñu ne bokkoon na ci le euh, premier ministre nous nous ñu reconduire un moment mais 2020 nous gagnons tout comme Boun Abdallah il revient à la faveur du remaniement BIP consacré la primature de Amadou et puis il est il est maire de de de euh, depuis bientôt une année, 2009 bataille. il est maire de l'inger, il gagne toujours chez chez lui alors euh, il est dans le dialogue. y a une chance là, am il a ses chances il est soutenu par le président pour être candidat il a ses chances il peut ratisser l'âge. est-ce que vous ratisser est-ce que vous porter. Mm. Euh, cette majorité est-ce que tout l'ancrage social.

wala candidat ba Sénégal yi dañu gagné donc kon candidat bi amna lu mo indil bopam doli ko ci président di indil Ali c'est quelqu'un que je connais très bien Ali Ali une petite histoire pour vous dire que on est très proche on est assez liés gis nga élection présidentielle 2012 il avait un mouvement politique jamono yoyu Ablaye wad da ko don draguer mok Habib Sy pour dougal ko ci gouvernement. Hmm? Ali ñëw na toog sama kër and ak Thiaw Kandji gi waxtaan ci mu son avenir politique mané ko li ma lay du foofu du ci Ablaye Wad, boobu ce serait une erreur politique d'être dans dans cette dynamique là qui sera perdante va dans l'opposition si si ton candidat ne gagne pas il sera faiseur de roi et c'est ce qu'il a fait donc kon un poids politique euh, les mu dit jaaxal mu cette relation là donc amna ay atu yoy ndax doyna campagne électorale nak comme ni mu nit ki dina Pas bopam lu bari parce que campagne do do, do ñu ni prix rek départ nga gagner hein ah. da nga ci biir campagne bi ngay wane lutax ñu ce euh, discours ce comportement na ngay doxalee ak la nga la sénégalais yi xaar ci yow man nañu dik dama lay jox ben exemple François Hollande à 11 mois de la présidentielle bi bi fallu bi bi fallu il était à 3%. On l'appelait, dès qu'on le monsieur 3%. monsieur 3%. <laughs> Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde se moquait de lui. Mais dafa def une campagne bien élaborée, bien chevillée, bagaillée contre Nicolas Sarkozy. Il dépeint comme un personnage hmm? austère, voilà. euh, Hollande mi commençait avec En Marche. On prenait pour les genoux que peut-être que c'est le pouvoir de l'argent, les banques, etc. Ils étaient dans l'aventure, donc on considérait qu'il était là pour euh, Hollande euh, euh, Macron bi il commençait, on on donnait pas trop cher ses chances les gens pensaient que d'autres allaient être élus à la place mais les gens pensaient à des Fillon et autres Oui, Fillon était très proche très proche et Tolof Tolof Amna, il a perdu donc élection elle n'est jamais gagnée d'avance elle n'est jamais perdue d'avance mais tu as tout candidat Diao Mhm. directeur du domaine, inspecteur des impôts, euh, directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, mais Mamboy Diao a connu une consécration électorale, mhm. euh, deux euh, mhm. Il gagne devant son camarade de parti, Bibi Balde, et aujourd'hui il dit qu'il a des candidats et il assume ses divergences avec quelqu'un comme, euh, comme, comme, comme, comme Amadouba. Alors, euh, quelles sont ses chances L'autre le danger, Benno Boko Yakar, voilà APR. su ku nekk amee ce électorat ce duc. Yakar ni que au niveau national di nga gagné mën ngaa am ay voix fa nga mais mën ngaa bañ am ay voix et il faut se neutraliser Moi danger bi wax au début naan la que bu ñu moytul ñoom ñooy xañ seen ndax bu candidature yu bare ku nekk gañe fa nga dëkk taxul nga au niveau national nga for fi 1 pour 2 pour 3 pour cent keneen for ko ñaari candidat dagga fële ci la nga am 12 pour cent 13 pour dem deuxième tour nga ñu négocier ku ngeen di jàppale est-ce que c'est intelligent. pour yow non xam nga tu sais. dañoo war a li tax li tax nit ñi def déclarer candidat dafa bari may mun a xam nga wax nga fi léegi ni nit ki mën déclarer candidature parce que dafa bëgg négocier wala dafa bëgg a compter wala dafa bëgg buzz médiatique nit mën naa déclarer candidature peut-être pour d'autres raisons xam nga mas naa fi dégg fale ci ginnaaw benn candidat ba xëy na déclaré ah ma ni mais benn waaye woo ma ni ma mais yow candidat bi déclaré moom est-ce que c'est pas une candidature pour chercher l'impunité parce que mën nga def tooxi doona yaakaar ni que yow kat bu ma nekkee candidature bu xam nga Sénégal da xam nga yaa fi loolu la fi commencé waxtaan kuy politique rek yow da nga dañ tu es absous tout ku la jàpp ñu ne ñu ne règlement de compte politique la kon tey boo defee tooxi doon na nga nekk candidat Euh, bu êtes candidat à bu président bi tay bu sa dossier buñ la tégué loxo ñu ni bu la taxé loxo ñu ni politique la Diouf 2014 hmm? euh, c'était hmm? la grande révélation la grande star des des locales hmm. euh, il est le seul à avoir gagné à Dakar Khalifa Sall a infligé une bérésina à l'Alliance pour la République et à Benno alors mu nekkoon directeur du coup nous ministère des transports euh, aériens et du tourisme mu Locales, Fofu. ministère collectivité locale mu nous fofu, ministère de la santé euh, mu avons maire Yoff père au local euh, de 2022 et puis nous à la suite d'incidents euh, récurrent euh, d'incidents criminels euh, euh récurrents mu en tout cas jusqu'à une date récente le seul membre de l'Alliance pour la République nga euh, il pouvait se gargariser d'une base électorale à Dakar euh, Mom, est-ce que vous décou euh, Benno Boko Yakar, et faire gagner Benno Boko Yakar quels sont ses atouts non enfin ses atouts écoute hein, comme nous avons dit, c'est un responsable politique là qui a son envergure bon qui a des atouts qui a des handicaps da nga wax par exemple d'un ko pour des effets donc il y a un bilan négatif il y a un passif lourd à porter. mais il a bien travaillé du Covid bi hein, il a bien travaillé du bah, euh, Covid bi Covid euh, les gens avaient salué le travail qu'il avait fait. Bah avec son équipe médicale. Ah, oui. Euh, bien après il y a eu le passif aussi. Mm -hmm. le rapport de la Cour des comptes. Euh, ah oui bon kon liñ ci tey fi ñu toll Covid Ablaye Diouf Sall ngay retenir. Moi, je retiens les deux. Le ah ben travail qu'il a, Donc, qu a fait et le rapport de la Cour des comptes. C'est les deux. Maintenant, jusqu'où le, le, handicap pèse, jusqu'où les atouts pèsent, c'est la valeur intrinsèque de la personne. Moi, je L'exercice que je fais, dafay compliqué. De compliqué. parce que li nga bëgg moo di ku nekk nga di ma du compliqué non da ngay da ngay da ngay dimbali nit ñi à mieux connaître les hmm. gens alors dafa femme, un candidat boo xam ne dégguma ko mu déclaré. Mm-hmm. dox waxu candidature Amadou le président de l'Assemblée nationale mm-hmm. euh, directeur général de SAPCO euh, le matin de l'installation de l'Assemblée nationale euh, le président il le sort du du chapeau tout le monde dit dem le monsieur était tellement discret ñu bari mais c'est un homme de base il a une base politique à à à à Richard et puis un compagnon de longue date de de de Macky Sall alors euh, lan moo tax nit ñi di indi Amadou Mame Diop dans le débat et je ne pense pas qu'il soit intéressé bon enfin qui est intéressé Quand ku collègue yaa xam sa bopp en tout cas moom doxewu ko waxee. doxewu ko waxewu ko mosul président assemblée nationale waxewu bon man je le connaissais vraiment pas bi koy assemblée nationale. wax dëgg hein mm-hmm. lay ah, jox rek exemple. franchement c'est à quelques heures de la nomination. de son choix découvrir. Hmm, à quelques heures de, la nomination ou euh, de, sa proposition, hein, que la Hamni Amadou j'ai recherché ce qui j'ai trouvé que c'était un candidat crédible. Et effectivement, l'Assemblée nationale, lañ ko fa jox yelloo na ko bon maintenant est-ce que l'on c'est suffisant pour être président de la République

on va terminer par les deux c'est là où ça coince. Mm-hmm. Euh, Ablaye de Diallo. Mm-hmm. Euh, Ablaye Daoude Diallo accompagne Macky Sall dans sa traversée. Mm-hmm. du désert. Euh, l'histoire dit que il a subi les conséquences aux impôts et domaines il a été. isolé bloqué dans son avancement Macky Sall au pouvoir def ministre du budget le ministère du budget n'est que ministre de l'intérieur le euh, mu ministère de l'intérieur intérieur le ministre des infrastructures euh, il na a des projets routiers, infrastructurels euh, c'est sous son magistère que nous avons démarré c'est sous son magistère que nous avons inauguré je me rappelle il y a beaucoup de tournées du président il était dedans parce qu'il devait inaugurer des projets euh, infrastructurels alors mu nous ko ministère des finances euh, finance mou atterrir euh, comme ministre d'État directeur de cabinet. Aujourd'hui, il est président d'institution, il est maire de Boké Djaloubé, une commune euh, du département de Podor. Il est également le coordonnateur départemental euh, de, de, Podor. Et puis moi, un débat autour de lui. et c'est Abdoumbo et, certains qui, qui, ont posé le débat. mais affaire, ça doit lui échoir. parce que lui c'est un c'est un appel authentique mbay Ndiaye sax il paraît que ci secrétariat exécutif bi néna président dal bo démé bay wara a dem nga mbir mi de sa héritage dang ko wara a ño xamné féké nañu ba ngay ba ngay ba ngay sos alors Abdoulaye Daouda Diallo chance atout handicap enfin li nga wax non nak franchement li nga mujj wax lay euh, ci lay taxaw nan da ngay bayé ñi nga xani ne fekk nañu ba ngay sos est-ce que bu doon ñoo fee nekkoon ba ñuy sos ba léegi ndax ñoom dinañu ndax bu doon ñooñu amuñu ci dolleeku ña créé woon APR amuñu ci dooleeku dina wax Macky Sall dina gagné 2012 ndax dina gagné 2017 ndax dina gagné 2019 ndax et cetera ndax ak ah, et cetera parti politique dafa am day ubbeeku di am ay doole koy renforcer euh, day dund di màgg di gën a yaatu jàpp ma nikk que yow. nga nekkoon fi ba ñuy déposer statut yi tax na nga ëpp légitimité ka nga xam ni que ñëw na tey waaye moo la ëpp mbooloo carte politique ay carte la ñuy wote dañuy wàññi ay ay baat ki ëpp baat mooy gagné kenn du ni kii moo légitime kon nañ ko fal parce que bu mën ngaa taf ku légitime mu dem ñu door ko ci élection yi est-ce que soxla nga ñu door la ci élection yi da ngaa soxla boobu dafa nekk un débat pour man stérile et c'est d'autant plus vrai souvenez-vous moi au lendemain de la présidence de 2019 débat bu mel j'avais dit l'heure pour Macky Sall de créer un nouveau parti politique ko avec des une analyse bu taxaw ni que li bu créer parti politique bu day rey débat Ma fi nekkoon démb bëgg démb fi jiitu démb bëgg la grande majorité l'alliance de la grande majorité présidentielle parce que voilà parce gis nga débat boobu bi ma ko souligner man am na ay nit ñi nga xam ne dañ nekk yenn parti nekk benn Bokk Yaakaar dañ ma woo am ay kilifa ni ma mais li nga wax ni ma jàmbal ñun loolu yàlla na ci yàlla dugal président ba mu def ko ndax ñun bëgg nañuy ñëw ànd ak moom dans un dans une formation plus demee mënuñu dem APR kon doon nañu yombalal ñun ñoom ñëw nekk benn parti ànd ak moom le président à un moment cette idée là lui a traversé l'esprit lu tax mu génn ci xaw ma parce que Je nga dama lay jox anecdote euh, quelque part aussi c'est un complexe que certains mettent sur le président et parfois da koy tënk ci lu bari te waru ko ci le premier remaniement du gouvernement de Abdoul Mbaye le premier remaniement du gouvernement de Abdoul Mbaye gouvernement bi ñu ko defee ci y avait ce jour-là

waaw ba jàmm waaw jàmm rek la jàmm la du jàmm waaw mu ya. ni waaw ñu eh, ni ko ñun président dañ àndoon ak yow ba fi dara dul dara amul lu ñu déggul sax ci suñu naataango waa PDS doon yoo xam ne Maxel bu faloo war eh, war leen léegi nag bi nga faloo ñu ànd ceeg yow dañoo gis nga def remaniement ba nga xam ne c'est un remaniement dirigé contre PR ndax waa APR rek a wala ñi ci ëpp boobu waa APR lañu jamono yi la Macky la patrie avant la avant le parti ci biir waxtaan am ku yëkkat. ku oui. Hmm. <laughs> la déet grand ah. <laughs> ah da da nga xam ki may wax de gars yi ko. <laughs> le lendemain. sama nijaay bi la. le lendemain xaw ma kan la de yow xaw ma kuy sa njaay kuy sa sama nijaay bi le lendemain.

mais sur le profil de mhm. Mhm. quels sont ses gens quels sont ces atouts euh, quelles sont ses chances de pouvoir faire aboutir euh, une victoire de Benno Non, mais, c'est les mêmes chances et les mêmes atouts que, les autres hein. franchement. Euh, candidat pour président, TAN, un avantage du soutien du président surtout que le ma xalaat le président mooy c'est ex directeur de campagne. Oui, mais moom Ablaye Daouda il y a, un ay atout dina indi euh, son quotient euh, personnel boole euh, le quotient du du président de la République est-ce que gis nga des chances un quotient personnel pour amener indi pour faire aboutir une belle communication en tant que professionnel il doit travailler son élocution travailler son image travailler euh, la perception que le public doit avoir de lui Là nag ay professionnels yu mel yow on ref une personne une personnalité politique dans son discours intonation na posture son image parce que là aussi daf politique maintenant daf ci am solo peut-être handicap bi gana am peut-être c'est son élocution il doit travailler ça ça peut-être que c'est pas pas de la politique mais une candidature pour la gagner il faut barrer qui lui laaj dafa bari lu muy laaj xam nga mais mais remplir na légitimité bi. en termes de politique et de compétence la légitimité lim légitimité. non politique. non mais oui bien sûr bien sûr il a la légitimité politique cela va de soi. il a incarné des fonctions publiques importantes officielles de l'État il a un mandat électif comme nous euh, etc. kon personne ne ne, ne pourrait s'étonner de ce choix là ku nek da ngay dëgg rek xam nga lan moo cee xew kii da nga naan diwoo ma gënal waaye diw amu ci droit kenn mënu koo wax. ci ñoom ñoo ñu ci ñoom ci ñoom ñëpp ak ñi ñu tuddul sax légitimité au même titre que tout le monde maintenant sur qui va porter le choix du président. On attend de voir. Alors, euh, me terminer par hmm. euh, Amourouba, le Premier ministre. Alors, Amadouba, il est directeur général des impôts et domaines depuis 2006. Mmh. Hmm. Euh, 2014, a intégré l'armature gouvernementale en tant que ministre de l'économie et des finances. Euh, bu yor poste bi ba euh, hmm. sous son magistère qu'il y a eu tous les groupes consultatifs et puis mon bokon, ci ñi tête de filo. Euh, matérialisation plan Sénégal émergent. 2019, euh, après la présidentielle, nous avons au ministère des Affaires euh, étrangères, mais Covid a caporalisé son action. Nous avons en 2020, nous à l'extérieur, traversé le désert. Politiquement, il a gagné Dakar en 2016 au référendum, en 2017 aux législatives, en 2019 à la présidentielle. Mais euh, 2022, pour les deux élections locales et législatives, même s'il n'était pas candidat, on lui impute la faute morale et politique euh, de cette défaite à, Dakar et aux parcelles Zasseni. 2023, il est nommé Premier ministre. Et puis, euh, Nubari, euh, en tout cas en dehors de la paire beaucoup d'observateurs euh, incarné euh, incarner le choix de raison du président de la République de, de, alors euh, chance, atout, handicap pour Amadouba euh, Handicap, il peut être contesté par certains responsables de la qui peuvent le combattre, comme les 2014 le politique, euh, ou 2016 précisément. les gens vont dire que ce n'est pas un appel authentique, ça c'est peut-être un handicap peut-être qui peut peser ce qu'il peut peser. Bon, mais c'est selon. maintenant, tout, il a fait des preuves dans les ministères où il est passé, les taux de croissance ou les performances économiques que le Sénégal a réalisé sous Amadoua dans l'histoire du Sénégal, Amoufi. Peut-être on se projette pour l'année prochaine avec Moutafaba, avec l'économie du pétrole, à, aller, à faire plus. Mais avant Moussoufé et après lui aussi, un taux de croissance, ça a baissé. Donc c'est vous dire que en termes de performance économique, Khayna Amna Lumu euh, euh, Indi. Mais toujours aussi, il faut dater un choix ou dater une situation politique booy xool Amadou Ba la ñu mujj ni bu dee un parce que président de la République bu amee post bu mu mën a joxe bu ci ëpp ba ca gën a rëy mu mën koo décider jox ko nit mooy post premier ministre am déet. Mm-hmm. amul beneen poste bu kowee premier bu nekk ci sañ-sañu président bu mu mën a joxe. bi muy joxe ñëpp nekkoon nañ fi ñi nga tudd ñi ñëpp bëggoon nañ ko pare woon nañu pour loolu Amadou Ba la ko jox kon man jàpp naa ni am na lu mu yaakaar ci Amadou Ba. am na lu muy ci mom kon kooku a priori favorable la pour mom te nak wax deug yalla aussi période bi nga xam président mi ngi choisir un premier ministre japp naa ne ci sama xam-xam bu Gat, il se projetait à la présidence de 2024 ah bon merci eh mais bi ñu wax nan il s'apprête à à passer la main mais bien sûr parce que li ñuy wax ni président di wax deug yalla bu li eh, décision bi mu ñàkk dem yàgg na ci moom de du lu bees en quelque sorte pour xëy na ñi nga xamee ni amul nañ ay signaux yu ñu liir ci moom wala lu ñu mën a for ci seen waxtaan wala peut-être lu président rëccale ci ay waxtaan wala leneen am na ñi dara bettu leen ci am na ñi nga xam ne moo tax am na ay jamono nga xam ne ma déggee fi gars yi wax troisième mandat di wax ba seen dënn yi tàng man leen naka ngeen a mën a xam gentu sam bopp xam géntu sa morom yéen da ngeen di lettaleel président gént mooy xamagoo lu président di def la preuve bi mu xëyee ni nekkul candidat ana lu nit ñi doon wax parce que man leen def leen ndànk lu ñëwagul naka nit ki mooy joxe décision joxagu ko nga bëgg ni nii lay def les gens étaient convaincus que Macky Sall day troisième mandat pendant que d'autres étaient persuadés qu'il n'allait pas demander un troisième mandat moo tax aussi il faut que euh, je peux te dire Maïmouna euh, président il se projetait sur l'horizon 2024 bien avant ces instants-là. Premier ministre. Mais oui. C'était un des choix de nomination d'un Premier ministre. Un chef d'État, il prépare sa succession. Et il voit. Et aujourd'hui, comme le président, il prépare la succession. Quelles sont leurs positions

préparer parmi ses choix pour une succession ou bien un candidat à désigner parce que c'est même pas parce que aussi parce euh, que président conseil bi mu ci jox hmm. Diallo était ministre directeur de cabinet à l'époque nommé les conseils systématiques que le président leur a toujours donné c'était

ak a gisee la nga xam ne may noonu du ko yëg ma jàmbal du ko mais mais fan la jógee yow les deux hommes te nga fekkee cette rivalité entretenue ou supposée ou réelle entre euh, wala cette inimitié euh, je sais pas si elle est supposée si elle est réelle entre Amadou et ak Abdoulaye Daouda. bon elle est bon euh, est-ce que réellement c'est une inimitié ou une concurrence ou xëccoo wala ay responsabilités yuy joxe parce que en réalité confidence pour confidence. Amadouba était destiné à être au gouvernement à l'accession de Macky au pouvoir. Minute qu'on a voulu un appel authentique. Et c'est à ce moment-là qu'Ablaï Daroyal a été nommé ministre du budget. Oui, mais sauf qu'aux finances, il n'y avait pas un appel, il y avait... Oui, mais, ouais, mais, non, non, non, je veux te dire que, donc, il y avait un choix entre deux personnes, et le choix était parti pour Ablaï soutenu par des responsables qui de PR. C'est ça, c'est ça la vérité historique. C'est ça la vérité historique. C'est ça la vérité historique. En 2012, Ablaï Diallo a été préféré à Amadouba pour entrer au gouvernement. lu des seen diggante lu xewoon man xawmu ma nu ñu bokkee woon impôt xaw ma dox xawmako mais ay dit aussi bu ñu bokkee di xëccio di bëgg di bëgg même chose dina am toujours ay rivalités am concurrence peut-être une petite animosité une petite mesquinerie etc cetera entourage aussi parfois aussi les gens. parfois les gens aussi chacun essaie de tirer la couverture du côté de l'autre etc cetera wala me ay pour peut-être montrer que malgré suis un peu bëgg wala etc. il gën a jege wala et cetera yooyu day mais aujourd'hui la réalité politique je di que le nañu ni que choix président bi mun na bañ a génn comme aussi ça peut être un handicap ou bien ça peut être un facteur de perte pour tous les deux. est-ce que le président peut se dire, écoutez, est-ce que nous avons un troisième Là. homme peut-être euh, pour euh, ne pas avoir à choisir entre l'un et l'autre Alors, l'image est euh, structuration politique, bi, pour le deuxième tour, un candidat de la majorité. Mënul mënul ñak un candidat de ils sont issus de la majorité au deuxième tour. non mais mais mais tu deuxième ci opposition euh, Ousmane Sonko euh, Khalifa Sall Karim Wad, euh, Abdourahmane Diouf Alassane Abdou Mbaye Déthié Fall euh, euh, voilà pour les candidatures déclarées. Euh, Mimi Touré Mimi Aminata Touré. etc. cetera et cetera ensuite am na ay candidatures yu mais kan moo ci nekk en pole position peut-être pour euh, représenter l'opposition euh, en cas de second tour. wala pour gagner l'élection au est-ce que li ñuy ragal ci euh, majorité bi du dal opposition bi. c'est-à-dire di candidats yi bari ba saucissonné voix yi ba handicapé leen est-ce que aussi opposition bi candidats yi du leen handicapé ba nga xamee ni que kenn ci ñoom mën naa bañ deuxième tour. parce que tey amagum nañ une quinzaine de candidatures déclarées c' est loolu moo amul non du question par quinze yow on est à plus de 48 candidats déclarés nga naan lan fii Sénégal yi dafa mel ni ku yeewu boo xoolee sa bopp ci seetu rek gis nga sa bopp palais présidentiel au nom de quoi moo tax fii toog naa fii di ñuy xataraayu ci parrainage bi leen dafa nécessaire. on se rend finalement que. non y' a pas on se rencontre à l'époque. époque dañu nanguwul a déglu nit ñi mais Sénégal dañu yaakaar dañu nekk réew ba nga xam ne dafa bokkul ci àddina bi àddina bi dafa am ay règles yi ñuy sélectionné ñuy dem ci élection France le parrainage est plus dur qu'au Sénégal mm-hmm. dañu dañu France démocratie dañ ko gën a am ay élection ouverte élection France dafa baaxul ak beneen réew ak beneen réew mais ñun dañu bëgg am la nga xam ne amul fenn di doxale na nga xam ne kenn du di doxale. mais ñan ñooy les champions de l'opposition électoralement parlant. bon ñan nga jàpp ne. man xam kan laa jàpp champion mooy ki am élection dem am score. donc muy Idrissa Seck Karim Wade. ak Ousmane Sonko. ak Khalifa Sall ki avec son camp taxawu. maintenant nag loolu. ba xam ku am ak ku amul. parce que tey mën ngaa dikk am fi un un un yow jàpp parti socialiste France. Ils ont un chef, un président Hollande qui sortant le Parti socialiste français à moins de 5% des suffrages à l'élection présidentielle suivante. C'est une dégringolade. Comme d'autres partis qui avaient peut-être des difficultés pour avoir 15%, sont avec 20%. Ou bien un candidat sorti de nulle part, Emmanuel Macron, qui est sorti pour aller être premier au premier tour. Donc, c'est des, des situations politiques radicales imprévisible. Mais, mais, mais Idrissa a eu 20 vous pensez que euh, dina renforcer wala dina am déperdition électorale. ah mais même réponse bi dans lay les gens, xew ci élection parce que campagne électorale la koy tax a gagné la dynamique nit ki la capacité à entraîner les électeurs. les masses. et les masses comment mën nga que au royaume des aveugles les borgnes sont rois éventuellement boo dikkee nga dikk daje ay candidat xam ne c'est les bras cassés mënuñu dem nga dikk taxaw ni ñi mën nañ ne ah kii kat moo fi tane dañu ànd ak moom wala lu mën na am élection kenn xam ko koy gañ. mais parlant de dynamique euh, gis nga Ousmane Sonko dynamique euh, bi mu porté ci législative yi ak euh, locales yi s'il était candidat est-ce qu'il peut est-ce que du moom mooy nekk le champion de l'opposition bon man je ne le pense plus dans la mesure où bu nekkee candidat da koy disputer électorat bi ak Khalifa Sall disputé ko ak Karim Wad disputé ko ak Malikakou, disputé ko ak Malik Gakou disputé ko ak ñi nga coalition la même réponse l'électorat va être saucissonné qui sera en tête parmi ces gens-là je ne saurais le dire mais ku pour ci ce ce ce ce ce deuk localité peut-être qu'on peut dire que le PASTEF a une implantation plus nationale que les autres formations politiques euh, le PASTEF mon école locomotive coalition kon lu bari PASTEF mais faut pas sous-estimer l'électorat du PDS faut pas sous-estimer l'électorat de Tahoua à Dakar qui est un électorat très important à Dakar. Et très conservateur. Ah ben justement, donc ça veut dire que aussi euh, élection, il ne sait pas... Mais Karim il est intéressé

du ma ko fa bàyyi di ñëw Sénégal fi ñu may saaga ak di ma xas di wax lu ma warut a wax ak di ma dëkkal néeg yu ma dëkkul du ma ko def lan moo ko booleeg Sénégal fi mu toll nii Karim Wade tey amu fi ñu jaay amu fi maam bu fi nekk bu fi lu ko booleeg Sénégal mooy bu fi ñuy fleurir la tombe de saa femme man de bu la moom naa ñëw vacances Sénégal di fleurir la tombe de mon époux di ko ñaanal waaye toog fi naan damay laaj président la République du Sénégal sama xel mu gàtt du ma ko woon def bu ma nekkoon place am néew ma du ko def xëy na bu ko defee bu ko jaralee mu def ko bu ko jaralee bu ko jaralee xam nga ku nekk nit léeg-léeg nit ki dina bëgg alkandeem dina bëgg lu koy sonal nit dafa bëgg lu koy fitnaal xëy na loolu dina tax ba mu Karim Wade toog fii laaj Sénégal waaye man de bu ma nekkoon wax dëgg yàlla bu ma nekkoon place am dinaa tal leneen lu dul nekk fii damay xëccoo Sénégal gisuma aujourd'hui lu ko Sénégal mën a indi lu mu amul ba pare te gisuma ax dëgg yàlla mu def fi la nga xam ne beneen Sénégal mënu ko fee def gisuma ko honnêtement maintenant man na am ñu ko ñu farag mom ànd ak nga ne lo Karim wad def fi loo xam ne sénégalais mënu ko fee def. non mais tu sais euh, Madiambal avec le avec le recul on se rend compte que Karim a eu raison sur beaucoup de choses. comme quoi. quand il portait les grands travaux là. Hmm. mbamb bi top ko. Euh, Karim grand travaux yi fi porte dafa gën dafa ëpp grand travaux yi. Macky wa mais wa mais fi mu amé raison moy dañ doon wax naan à l'époque c'était des gouffres à sous Macky Sall ñëw continuer euh, même trajectoire euh, de réalisation de grands travaux euh, Karim Wade plan ne permettre ñu ñu ñu am énergie ah? faut aussi qu'on restitue l'histoire Abdoulaye Wade devant les Sénégalais mes éléphants blancs ont pris des couleurs avec Macky D'accord. C'est avec Macky Sall que ces projets ont été réalisés. Plan Takal Bob, c'était la pire catastrophe du Sénégal. On a... rejeté Non, non, non, si ils l'ont rejeté, ils l'ont, ils fait autre chose. Les, les financements du plan TACAL utilisés NEMCO pour lancer la révolution énergétique. non, non, non. Karim Wad, m'a dit un taux de 96 jours de délestage électrique il faut réviser l'histoire aussi. En 2013, ce taux a été ramené à moins de 48 heures ou 24 heures. Parce que l'égard du Sénégal a changé euh, de stratégie. À l'époque, c'était pas bien le DG de la Sénélec. Et je crois que Ali était le ministre de l'énergie. Euh, le président Macky Sall, qui a été ministre de l'énergie et peut-être qu'il avait une connaissance de ces enjeux-là,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 Il y a des socialistes. Hmm. Il y a des grincements dedans. Ah oui, bon, il y en a qui veulent un candidat socialiste. Oui, mais ce candidat socialiste-là, est-ce qu'il veut un candidat Candidat de quelqu'un qui avait quitté le PS Parce que aussi, différence, il y a différence. un candidat bu jógee parti socialiste un candidat ba nga xam dañ parti socialiste hein? mais xëy na obédience socialiste donc aussi loolu mën na comme aussi en politique il euh, faut jamais dire que Fontaine je ne boirai pas à ton nom mën nañu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

ñu ni dañuy présenter candidat ñu ni kan Adam ñuy présenter Adama Barrow xëy na moom na fay caution bi ñu ni du parti cinquième personnalité mu nekk candidat nekk président personne ne l'attendait personne ne l'attendait il s'est révélé un président Macron huit mois avant la présidentielle kenn xaaru ko mu nekk président kenn xaaru ko mu nekk président donc dafa am ay dynamiques yuy créé wu ci élection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 C'était un exercice très intéressant mm -hmm. et j'ai voulu vous, euh, vous soumettre à cet exercice-là parce que euh, yo yaa ñu gën a xam gars parce que fekkee nga un un pan euh, nu mu tudd benn euh, révolution boo xam ne qui s'est opéré peut-être que ñun am yo xamné don yo xamné yoo euh, duñu ko duñu ko saisir. mais dafa am lo xam daf may xawa teunk mm. ci waxtan euh dina am la nga naan mais duma ko du ci mën a àgg. li tax ci mën a Modi bu fekkee da yàlla dafa may nga fekkee benn jataay wala benn mm-hmm. waxtaan wala mm-hmm. nga fekk mbir wala ñu doy loola boole la ci mbir devoir de du jaadu sax nga koy wax mm-hmm. moo tax lay xaw a tënk mais da nga analyser et c'est du factuel te euh, euh, léegi-léegi sax Euh, la nga ko <laughs> mais mais li euh, bon c'est du c'est du factuel en tout cas je ngi remercier. Mm-hmm. Euh, mais Fateline, le prétexte de cette invitation c'est ce livre bi nga histoire de Adji Ousmane Sonko confession de la victime au Sénégal mais Tibir nous ñu une étude de l'évolution sociopolitique et sociodémocratique de notre société et de l'évolution au plan humain aussi euh, de notre société avec ce, avec ce récit euh, de, de euh, le récit, il est poignant, mais il y a aussi le procès de, la, de, la, société sénégalaise à nous nous percevoir les nous nous percevoir les victimes, nous nous traiter. beaucoup de choses. En tout cas, je pense que c'est un livre, on, a, on en reparlera encore. Mais Fatina est président du groupe Avenir Communication. Euh, tey it nga nek journaliste analyste politique ma lay remercier Ce mhm. dernier mot. jërëjëf Maimouna et di la encourager te bu fekkee aussi waxtaan wi am na ci la nga xamé ni kàddu yu ma rëcc la euh, bu ko nit rafetlu wul maa ngi koy euh te di wax ni ko xëy na yéene ji la rek xëy partager partagé waxtaan la ba euh, di ñaan njariñ jóge ci ci réew mi njariñ jóge ci ci réew mi mais aussi yalla dogal

de la femme, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Après, répéter pourquoi nous ressentir le besoin de répéter ça La répétition est didactique. Parce que les filles, c'est des choses menacées dans ce problématiques. qui sont menacées et qui font l'objet de menaces et d'agressions dans ce pays-là. Merci merci beaucoup alors may leen retrouver vendredi à partir de 22h avec un invité spécial très spécial nag euh, Cheikh Ahmadou Noreini, Noreyni euh, gouverneur général dal khadmiya euh, moom Serigne Modou Kara nag alors ce sera une première ñu dalal dîner. Euh, kilifa il y a yemul ci diine bi euh, PVD euh, il parle d'une coalition du siècle nee na le président bi di di sokkee ko daañu waxtaanee spirituel tuuti parce que c'est pas mon domaine avec beaucoup de temporel donc ce sera vendredi à partir de 22 h merci et merci à notre invité du jour au revoir